وظالمين من كفاني الصدمات سعادتي عند الإله الله لي ظهرت عند ذوي الملاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi leen di nuyu ci turu Allajnat As-Saxaafiya bi nga xam ne ñoo ñoo leen dalal fii ci jataay bi fas yéene mu yéeg li mu bi mu tàmbali woon ànd koog yéen ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke mi fi nekkal Serigne Abdou Ahad di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba. mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te sumb ak naan yi nga xam ne sumb na ko te naan ko sunu borom kàttanal ko mu àggale yëpp te mu ànd ko moom. di ñaan di ñaanal Serigne Sidi Mbacke ñu fi nekkal Serigne Abdou Lahad mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom mi nga xam ne moo nekk ci buntu Cheikh Abdou Lahad di nu liggéeyloo liggéey bii nuy liggéey di xeeñtu. ak gëstu ak a toppatoo jaar-jaar ak xam-xamu ak njàngaleem Serigne Abdoul Ahad nu ànd bokk yi nga xam ne ñoom la ñu seqal jataay muy bokk yi Serigne Sidi di liggéeyloo ci anam googu yi Serigne Abdoul Ahad Jaxate jiitu ko ànd ko bokk yi ma ko àndal ni ki Serigne Abdoul Ahad Bousso Muxtaar Serigne Abdoul Ahad Bousso moom Serigne Thierno Serigne Abdoul Ahad Bousso moom Serigne Moutalib Serigne Abdoul Ahad Bousso Maam Asta ak Serigne Abdoul Ahad Bousso Al Azhar bu Serigne Dame ak Serigne Abdoul Ahad Lo Serigne Abdoul Ahad Niang ak Abdoul Ahad ya ca des yëpp ci yeneen liggéey yu ñu leen di liggéeyloo kon mbokk bi liggéey bi tàmbalee ak léegi ci ndigalul Serigne Sidi ngeen di ko ànd ak laj na bi muy commission boobu nga xam ne ñooy toppatoo loolu yéen ak ñoom ci at yu yàgg ren bi mu jotee ndigal lu jógee ci sëriñ Sidi ndax ñor bu ko liggéey bi ñor moom itam mu tànn lii ngir liggéeyal sëriñ Touba jaaree ko ci sëñ Abdou lii buntam muy dundool xam-xam ak feeñal liggéeyu sëriñ Abdou mu ñor ko lool saa yu ne muy insister ak a jàpp ak a soññ ci liggéey boobu ngir bokk yi man koo jàpp man koo taxawee ci anam nga mu gën a rafetee yi itam di ay jàmbaar def ci ay liggéey yu am solo bi liggéey bi tàmbalee léegi ñu def ci yitte yu bare bare dem ci kilifa yi nga xam ne amoon nañu ak jokkoo ak ak jonjoo ak sëriñ Abdou Lahad def ci ñoom ay témoignage yu am solo jàpp jàpp naa ne bu ngeen dee topp jataay yi da ngeen gis sëriñ mo sëriñ Mouhamadul Mamoun moom Cheikh Mamadou Fadil ci waxtaan wu am solo woo xam ne def na ko ci ay seede yu am solo jëmee ko ci sëriñ Abdou Lahad da ngeen gis itam sëriñ Cheikh Oumy moom Cheikh Mamadou Fadil ci ay seede yu rafet yoo xam ne moom def na ko da ngeen gis itam sëriñ Aliou Ndiaye di mag mu baax moo xam ne moo daan dawal sëriñ Abdou Lahad yàgg ak moom lool di ay seede yu am solo yoo xam ne bokk yi yëpp bokk yi ñoo ko jëriñoon ak yu Youssou Diop bi nga xam ne moo jiitu yoo Hizbut Tarqiyyah moom itam ay seede yoo xam ne def na ko ci Serigne ak seede yu yàgg yu ko jiitu yoo xam ne yéen a ngi koy gis yoo xam ne ëppoon naa ñàkk a def ndax dafay génn ci xam-xam ci ay njëriñ ci njàngaleem Serigne Abdou Lahad jamono yitte woon na ko lool tabaarakallah nit ki la bokk yi ñu àndal liggéey bi eh, dafay itam jataay bi bokk ci jataay yooya te la ko jiitu defoon jataay bu yaatu muy taawila mustadira bi nga xam ne defoon nañ ko jël ab thème waxtaan ci alquran ak sëñ Abdou Lahad jox ko ay bokk yu am xam-xam te yëngu ci alquran ñu traité ko fa indi ci ay leeral yu am solo muy sëñ Xaadi Jaxate ak sëriñ Moustapha Diom Ndar ni ki doon it démb la ñu leen euh, béréb bi nga xam ne mooy exposition bu am solo bi nga xam ne làmboo na ay xam-xam yi archive yu am solo ci jaar-jaari seen laxaat donte le ber nañ ci aw laaj boo xam ne dana gunge temu bi te mooy Sëriñ Abdou Lahad ak alxuraan waaye itam nag mu am yeneen facette yeneen laaj yoo xam ne mi ngi jëm ci Sëriñ Abdou Lahad te bokk yi gaaral ko ci exposition bi ñoom Sëriñ Abdou Lahad Bousso Moutalib ak Sëriñ Abdou Lahad Ndiaye ak Sëriñ Abdou Lahad jatra te lépp bokk ci kuréel gi ñu agsi nag ci jataay bu bokk ci jataay yu mujj yi ci wàllu dundal xam-xam wàllu berne ci wàllu ruux mu di jataay bii nga xam ne euh, ni ngeen ko daa miine ay jamono dañuy fi daa daje di waxtaan ci geneen anam ngeen koy wooye cérémonie officielle ci ni ngeen ko miine waaye bii yow nag sëriñ bi wax ne nañ ko wottee ci geneen anam moo ñu tànn waxtaane ci seetlu ak jàngat waxi sëriñ Abdou Lahad dañu jël discours sëriñ Abdou Lahad parce que yéenee jàngat tojoo ko ak yéen xawtoo ko ak yéen parce que yéenee ànd ak sunu mbokk sëriñ Muxtaar Lo incha allah mu war a càmbar discours boobu nga xam ne sëriñ Abdou Lahad defoon na ko jëme ko ci alquran du nu ko jiitu ci li mu bind waaye bala nuy agsi ci sëñ Moxtaar bala ñu koy jox kàddu gi euh, dañu koy ubbee alquran ci sëriñ Abdoulaye Jaxate bu noppee ñu jox sëriñ Abdoul Ahad jaxate mi nga xam ne moo jiite laj na bi discours bi sëñ Maxtaar loo war a jàngat mu nettali nu ko ci diggante bu gàtt ci juróomi minute jaar ci rek ngir bokk yi dégg discours boobu ni ko sëñ Abdoul Ahad waxee woon bu ko defee sëñ Maxtaar loo la ñëw nag ci discours bi indil leen tomb ak point yi ne ci biir su noppee ba sëñ Maxtaar ne waxtaan bi war a ko allah ñu jox kenn ci laj na bi moo xam sëñ Abdou Lahad Moxtaar lay doon wala sëñ Lahad Cerno wala kuñ jox rek mu wax ci turu kuréel gi su àggee nag incha allah mbokk yi nga xam ne ñoo nar a fanaanee bunt ci jàng alquran ak jàng xasida ak durus ñi nga xam ne dañuy jàng ci riim ak ñiy jàng ci yëkkati kuréel bu jàll geneen jóg loolu la incha allah yi fas yéene fanaane tey ci guddi gi kon ci yàkkamti rek ak pour njëkkante waxtu wi dañuy jox sëriñ Abdoulahi nga ubbil na ko ci alquran karim أعوذ بالله من الشيطان asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi gannaaw nuyoo bi gannaaw bu ma leen nuyoo nuyoo bu war sama digg ak yéen sant leen itam di leen baal àq di leen ndokkale itam ci weer barkeelu yi nga xam ne mooy sunu ndimbal te dikk ba jàll ci jàmm mu am nag yett yoo xam ne dama bëgg nu waxtaan ci ngir dañoo amul lu ko weesu lenn li moo di yàlla ji woo koŋ yu dara koo ñaareel ba moo di ngor gu wér cëng ak njulit gu mat sëkk ngir danoo amul lu dul moom ñetteel ba nag mooy li mu dal nun jullit yëpp te nu teg ko suñu bopp war koy fàttaliku war koy seet ndax mu rafetal sunu doxin yëg naa ne benn jullit bu nekk ñaar tànkam yëpp ñu ngi ci ab jëng te fab nag ak buum itam ko ca ci baatam dolli ca te suba gu xëyee fàttali ko jënd bi moo di ban fa nga waxee ne ashadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah dellu waxal sa bopp ne wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu booba nga daal tàbb ci jënd ngir goo gor wax nga te al xurru xurrum maa lam yatakallam buñ ngi itam benn jullit bu ne bu xëyee wóor na ko ne dana jàkkaarloog yàlla wax ne allahuma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxnahu laka wa naxlahu wa natruk man yakfuruk allahumma iyyaka na'budu fa mu taxaw di ko wax du fa jóge mukk te yëggul ci ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir te loolu sax dana ko wax juróomi yoon ci bis bi kon nag dal nay mel ne ne bu fekkente ne ab jéng dafa nekk ci say tànk ak buum nekk ci sa nga door a jóg nag door a dox war ngaa seet fa ngay teg say tànk war nga itam xool suuf ngir pakk yi fële nekkul ci kaw ci suuf rek la ne loolu nan ko xam sunu doxin ndax mu rafetal ko wàllu yàlla moom liñ ci war a wax moo di yàlla li mu def dafa lu seen wicc leer naññi wér jéng moomu yonent bi rek la xam ne cir sunu kanam toppaloonu ci moom li ma ko sampa it lu leer la huwa allasi arsala rasulahu bil hudaa wa diinil haqq liyuzhirahu ala diini kullihi walaw kariha al mushrikuun dellu ko fàttali ne huwa allasi arsala rasulahu bil hudaa wa diinil haqq liyuzhirahu ala diini kullihi wa kafaa billaahi shahiidaa muhammadu rasulullah daal di ne it man yuti rasula faqad ataa Allah wëlbatiku nag daal di wax ak yonent bi wax ci boppam wax ci boppam li mu wax yonent bi moo de daf ko ne wa nazzalnaa alayka al kitaaba tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushraa lil muslimiin daa da koy waxit ne ko wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nasal wa maa arsalnaaka illaa mubashiran wa nasiran moom itam li mu ko jottuloo ci noonu li mu nu njëkk wax moo di in tubdu shay'an aw tuxfuuhu fa inna allaha kaana bi kulli shay'in alima dal mun ci tegal ne in yastax yusibkum ayyuha nnaas wa ya'ti bi aaxirina wa kaana allahu ala zalika qadiira doora dikk ne yaa ayyuha nnaas antumul fuqaraa ila llah wallahu huwa alganiyyu alhamiid in yastax yusibkum wa ya'ti bi xalqin jadiid wa maa zalika ala llahi bi aziiz bi mu taftalee yooyu it wan na ko nag ah lisaanu xaal mootu koo ñàkk laaj kooka kana mu daal dina zalikum lahu rabbukum laa ilaha illa huwa xaaliqu kulli shay'in fahbuduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil laa tudrikuhu al absar wa ma yudriku al absar wa huwa latiful xabir qad jaayakum basaair min rabbikum fa man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alayha wa ma ana alaykum bi aziz bi mu ne waxee loolu it daal dina kaay leen nag allahu lasi xalaqakum summa rasaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min surakaaikum man yaf'alu min zaalika min shay'in amut subhaanahu wa taala ko yushrikuun yooyu melo nag daal di nekk melo yu mat ci wàllu yàlla sunu borom boo xam ne kuy dégg wala ngay gis gis nga ko waaye taxut nag muy dara fa yàlla moom ngir moom maa xalqukum wala baasukum illaa ka nafsin waahidatin rek la wax innaa kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar wa maa amrunaa illaa waahidatun ka lamhin bil ma jàpp nag ne bu yàlla dayee noonu mu woyof toyy ci ronam di di jaamam yërmaande ndimbalam su ma nee tax mun a faskuruni askurukum washkuruli wa takfuruni loolu daal dañ ci war a daw ba sant rek ñu ci war ngir waroon na topp ci moom saa su ne bañ ko fàtte te du tax sax mu geesunu te wala takfuruni sax li ko ci indi as njikko la rek su nekk si noonu si nekk suñu biir ni da ko doxee ne yàlla moom léppam lu jëm ci noonu yërmaande rekk la ko def bu ci dikkati rek sunu dox yi bopp suñu biir la njëkk soos yi ñu làmboo ba war a mën a waa takk firoona ji njëkk soos yi moo di fa isaa masal insaana durrun daxaa li janbihi aw qaa'idan aw qaa'iman falammaa kashafnaa anhu durrahu marra ka'an lam yad'unaa ilaa durrin masal loolu moo waral mu ne in takfuruu fa inna laaha ganiyyun ankum wa laa yardaa li ibaadihi l-kufra wa in tashkuruu yardahu lakum wa laa taziru waaziratun wizra uxraa kon wàllu yàlla ngoog ak fa mu féeteeg nit ngor ku njulit nag des fi nu war noonu nga doon ko jul fam nu yegg bakkata yegg fa fetal ngir koo ñu doo gor baadoo jullit bu ñu gaawul yaddamu fa laa bopp toj fa te noo yaay nag dafa war ngir amul leneen kon nag gannaaw loolu la war a toll ci nun te tollootu ci nun noonu nag te amul it leneen lu dul moom dañu ko war a setantal di nag di ko waxtaane na mu war a doone di ko jéem a jikkoo ndax wuyu tur moomu di yombut gis naa na nag ngoro koog nit mëni si koo xam ci lu dul diggante nit ki ak boroomam ak diggante nit ki ak moroomam diggante nit ki ak boroomam nag moom ni ma ko gisee gannaaw yàlla moom laa malja wala manja minallaahi illaa ilayhi ak wóolukaay ak muccukaay ku dul yàlla amut te loolu leer la ndax ci weer yi nu wees rek gis naa ne jàkka jooroom dégg ñu maase ci maase leen ci tuub te sàkk sarax te baalante ay àq te booba fàttaliku na sunu borom na moom te moo mën a dimbale moo nu mën a musal loolu dong ba ko foo dem dégg dee si fa wax loolu yàlla daal jël ci faskuro ni askurukum joojee fa saasa daal ñuy wàllu wala xin woo xam ne kenn nattabli ne ba ndimbal la ñëwee kenn nattabliwul yàllaa dimbalee ngir néewul kenn fan laa lay dimbalee wala fenn laa lay dimbalee néewul kenn laa lay booleel ku ne fa nga ko doon sago séentoo fa ko doon sàkkoo fa la ko defee ba defaale ko mboy ga ci yow ba nga xam ne sa kàttan bu yeggoon ci mboy ga bokk ci say ndax mu doyal la ko ci lu ëppul kenn bu defee loolu baagal nag fab ñaari baatam nag teg ca ñaari baat ñooñee jàpp naa ne sàmm ñaari baat ñooñee moo di ngor moo di njulit ñaari baat yi mooy jan wa aatu xaqahu yowma xisaadihi wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifin loolu la wax te boo gisee mu ne wa aatu xaqahu ji lépp lu mu la jox la mu la cee dindiloo pasan la rek bu nekk ca biir ba mu la joxee baakal dindiloo la ci la nga xam ne war na la ca lor danga ko war a dind rek dind yi wu sell li ngeen di xamante ne asaka ji mu dindilu ci lépp loo xam ne asaka war na caa génn lore borooma mën naa leen koo leeral tey jii képp koo xam ne bay nga am téeméeri bërigo fukki bërigo war di asaka ja sag càggante tax nga fab juróom-ñeent ya génnee am yum de ca benn ba des ca gerte ga sa ngóora ak nawet bu baax mënatu laa may mukk déwén nga am téeméeri bérigo juróom-ñett fukk doo ko wees damay naa ku ne mu taxantal ko di ko seet ci lépp loo xam ne yàlla jox na ko te santaane ca asaka te mu ko ca ko koy wàññile ak bu mu de seyalul na mu ko koy dollile ku ne mën na koo seetal boppam te ku ko seet gis ko wala des defoo ji itam li ko ci indi moo di moom gannaaw walaw basata allahu risqa li ibaadihi la baxaw fi l ardi walakin yunazzilu bi qadri ma yasha loolu mooy li ma wax ah, boo xamante ne nag jox na la ba noppi li war di lor ci jox gi mu wax la nga dind ko bàggal la ca des itam da nga ko nag nga xam ne te saa réew lii fam ko war a jariñoo su ko defee nga jariñoo ko ci ak teey te bañ koo yàq ndax looloo tax mu wax ko kon ci wàllu yàlla ngoro ko mu sàmm loola ci la bokk sa diggante ak sa moroomam jullit ci itam li ma defe ne mooy la ci gën a la ci gën a wóor sàmm ngor ak njullit moo di doo ko tooñ mukk saa yooyu yëgee ne tooñ na la rek nga jégal ko yow ngir yàlla ak itam bu ba boo bàyyi koo ci sa kër dikk ne ko man da waay am loo xam ne sama yittee bëgg naa nga dimbale ma ci ba yàlla dimbale ma ma delloo la mu daal di xam ne yaa ngi sàkku dimbalal yàlla te xam na ne yàlla dana dimbalee moom it mu nangu ne yàlla dana dimbalee dimbalal la ca ne la dimbale naa la ci ba yàlla dimbale la nga delloo ma la ci gën a rafet bu la yàlla dimbalee ndimbalu loo xam ne kenn mënu koo miin kooku nga defanteeloon bul nit mukk mu fàttali la ko jëkk koo fàttali yaakaar naa ne nag loolu ci ngor lay bokk ñàkk gaa fàttali nag ba mu dem ba àgg fu mu wartoonoo yegg yaakaar naa li muy war a jur weesuut li ngay bañ a dégg rek doo si gor doon jullit te boobaa yi ak ronkoñ koy sotti lu tax nga des gor du tax nga dem aw yet woo gàddu du tax nga des gor du tax nga dem jullit nan na am ngor ak njullit ngir jëm yàlla ji nga xam ne amuñu lu ñu moom te sequnoo kenn ni kenn bu ñu ko defee yàlla daal ñuy dimbal dimbale ndax yàlla moom dane yaa ayyuha allasina amanu in tansurullaha yansurkum yàlla nag ni ko des dimbalee fi mu la war a awloo nga aw fa foofu doo nga des dimbalee yàlla nde def luwul dara te yàlla nag nee na bu ngeen ma dimbalee ma dimbale mooy maanaa bu ngeen ma awee fi ma leen awloo ma aw leen fi wa yusabbit aqdaamakum jàppal leen seeni tànk kooku nag defe naa ne googu wàll rek lañ ko war a seete di ko ko defee ndax moo gën a war ci noonu te yàlla moom mën nañ na koo sore waaye moom soriwunu ngir wa isaa saalaka ibaadi yi fa inni xariibun ujiibu da'wata daa'i isaa da'aani bal leen ma àq jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Diakhaté ci discours bu am solo boobu nga fàttaliwaat bokk yi muy wax yi Serigne Abdoul Ahad bokk yi lii mooy discours bi nga xam ne moom la bokk yi tànn ngir fas ko yéene yaatal génne tomb yi ci biir ndax xam ngeen ne waxi Serigne Abdoul Ahad day làmboo xam-xam bu bari boo ne day aajo tas aajo toj yaakaar naa bu ngeen déggee discours yi nga xam ne dañuy yëngu danañ xam ne ab saawolof bu mag a ngi nii ndax yàgg nañoo dégg ngor ngor ak njulit ngor ak njulit ji war a nekk gis gor akub julit waaye ni ko wanee ak ni ko jëmmalee ak ni ko jàngalee jàpp naa ne bu ñu dégloo suñu waxtaan wi danañ xam ne seen baax ab saawolof bu mag la kon daana firi waati wolof yi ci firi mu faagaagal ci yaatal gis ngeen bi ñuy firi baatu ak ni ko firee wane ne xéewal ñaan ko moo gën ñaan naataange ndax naataange bekkoor a ci daa topp xéewal nag mooy loo xam ne mënoo woon a fexe ba am ko te kala ko amal reen ko xam ne bëtu doomu aadama mënu jaatee rek mënu jaatee ki ba koy mas nañoo firi li tawfiq mu ne mooy tawfiq mu ne mooy mi ngi mel ni nga nekk sa kilifa ci garab gu mag ci digg àll boo xam ne naaj bi dafa tàng lool mu wax ak ba lu bay dem ba sori mu fàtte ko ne am na lu mu ko war wax mu ne la dabal ko bi ngay naan bëri bëgg génn ker gi lu ba geesu nga ko was ko mu ñëw nee loolu mooy dogal tawfeex mooy li ngay def dëppoog ni yàlla dogal kon jàpp naa ne góor ak jullit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 والصلاة والتسليم على مصطفاه الأمين وعلى آله وصحبه شم العرانين وعلى من اقتفى آثارهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew ak mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu nuyoob lislaam boobu te di leen ndokkule bu baax a baax ci xew-xewu lislaam bu mag bi ñu nekk euh, di beral nag ay nuyoo ak i cant ak i ziyaar saaxibul fadila cheikh mouhamadunil muntaqa di ñaan yàlla yàggal taxawaayam yokk ak wéram ba mu àggale naal yi mu yéene yépp te ànd ko moom di ziyaare jëwriñi kër Cheikh Abdoul Ahad muy Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad di ñaan sunu boroom yokk aw fanam akub wéram gën koo dëgëral ba mu àggale moom it naal yi mu yéene ci kër Cheikh Abdoul Ahad waaye naal yi mu yéene ci yoonu murid gépp di ziyaara bu baax nag waa al lajna al thaqafiya bi nga xam ne ñoom ñoo organiser lu am solo lii ci njiital sëñ Abdul Ahad Jaxate foog naa wàññil na ma lu bare bari ci li ndax day mel ne ab discours suñ la ko joxee nga war koo jàngat war koo analyser ñi ngay waxal ngir ñu xam li ngay wax dañoo war a dégg discours bi ba noppi ndax suñ ko déggut li ngay wax duñ xam du duñ xam ban relation la am ak discours bi mën naa mel ne sax ay léegi wa ki lépp ci ñoom waaye ginnaaw biñ ko dégloo moom foog naa danañu may li ma ci korfateeku su néew te noonu laa koy waxe xaj na du ñàkk ngeen mën a am fu ngeen ko te ci lim doon wax euh, maa jublu baatu li ma ci korfateeku su néew ndax discours bi dama cee nekk nekk ci nekk ci ma mujj ma ne lii foog naa dafa laaj nag jamono ju yàgg ak mbind mu bari kon nañ ci tënk dara rek waaye xawma ñu ko doon tànn waaye wax dëgg yàlla tànn gi euh, tànn gu ama am solo la kon yàlla yàlla fay leen aw yiw ci boole gi ngeen ñu boole ci yiw wii ndax yéene ñu yiw rek la waaye ñi ñu ko dàq bari nañ lool kon yaakaar ji ngeen am ci ñun yàlla nañu ko yàlla dëgg euh, dëggalal euh, ngeen xam ne nag mbokk yi woote woote jëme ci yàlla euh, mooy cosaanu lislaam ndax kii suñ borom joxoon lislaam muy yonent bi sallallahu alayhi wa ab wootekat la mooy ndigal li ko suñ borom joxoon ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana loolu mooy ndigal li ko suñ boroom jox muy muy woote euh, woote nag dafa am ay jumtukaay wala ay ay moyen wala ay defin wala ay yoon yoo xam ne wootekat yi dañ ciy sóobu bokk na ci jumtukaay yooyu jumtukaay jumtukaayu jëfandikoo sa làmmiñ jëfandikoo sa nag mën nga koo def ci anam yu baree bari waaye ba ëpp solo te gën cee mën a jeexiital ci ñi ngay woo mooy li ñuy tudde ab disku xitaab mooy li nga xam ne sëriñ Abdul Ahad moom la doon faral di def loolu lu mën a jeexital ci doomu aadama bi ngay woola jëme ko ci yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du may guddal ci di joxe ay misaal ci moom ak saxaabaam yi ak taabiroona yi ba ci sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba ku ne xam na ne jumtukaayu tey bi ëppoon solo ci li muy def mooy di xat di di wàqante ak ñi muy woo di leen jubbanti ci ay kàddu yaakaar naa waxtaan yu bari yi ñuy faral di wax wala yiñ tënk ci majmuwaa yi yu ci bëree bari da ko doon wax ñu koy tuxal ci mbind kon loolu firnde la ci ne jëfandikoo làmmiñ di wax ak ñi ngay woo jumtukaay bu ama am solo la ci wàllu woote sëriñ Abdul Ahad radiyallahu anhu ñëw moom yàlla boole ko ca ñooñu yàlla boole ko ci ñooñu ndax ndonaam mooy woote jëme ci yàlla ndonaam mooy jubbante ak ginde mu nekkoon ca bala soob suñ borom mu gën koo yokkal ab yanam li ma bëgg a wax foofu mooy ku ne xam na ne la jiitu muy doon xalif général des mourides la ko waroon ci ginde ci jubbante ci woote jëme ci yàlla ma nga ca waaye nag ba mu doonee xalif général des mourides nag ah dafa mel ne yan ba dafa gën a diis nag ñi koy déglu di gën a bari ay responsabilité am gën a yokk kon foog naa li mën a justifier li mën a layal lan moo tax muy wax discours bi mu def lii yaakaar naa responsabilité bu mu am te yonent bi ne kullukum raain wa kullukum masulun an raayatihi ca la bokk kon looloo tax Serigne Abdoul Ahad radiallahu anhu def discours bi discours bi nag suñu koy jàngat si ñuy tàmbulee mooy dañuy xool contexte bi maanaam ban siyaaq ban contexte la sëñ Abdou Lahad defee discours bi ndax booy analyser discours contexte bi da ciy am solo ndax suñ xamut contexte bi nit ki su waxee ay wax xamoo ñu mu doon waxal xamoo kañ la ko doon wax ak fu mu ko doon waxee ak mu taxoon mu koy wax dégg wax ja mën na laa jafe léeg-léeg nga dégg nit wax ay wax nga koy yéem boo demee ba xam ñam doon waxal ne ah kon kay nii rek la mënoon a wax nu mu mën a def lu dul nii kon foog naa xam contexte discours bi lu ama am solo discours bi niñ ko gisee rek dafa mel ne ci xew-xewu korite la xew-xewu korite jàpp leen bu baax li ma leen di wax xew-xewu korite su ma juumut ci mujjug nawet la li ma ko teg ndax octobre du ko sori da ngeen da ngeen da ngeen am yu ngeen di xool ci biir discours bi di xam ne li tax mu doon wax nangam euh, discours bi su ngeen ko xoolee xam ne ci xilaafaam la bi mu doonee xalif général Serigne Touba waaye ku ko jàng dëgg da nga xam ne ci njalbeenu xilaafa ji maanaam juróom-benni at yu njëkk yi yooyu yëpp day yu am élément yu am solo yu ma a bàyyi xel ndax damaa bëgg discours bi ñu. dëgg la côté contenu bi ak lan moo ci nekk loolu am na solo trop waaye daf cee am loo xam ne dañ koo war a jàng ñun muy nan la ñuy defee discours technique gu technique gu fannul ba maanaam technique ban technique nga war a jëfandikoo buy tax ñi ngay waxal déglu la nangu li ngay wax te loolu sàmmonte fii ak. Euh, ñi ngay waxal ak contexte bi ak xew-xew yi da cee am solo lool kon Serigne Abdoul Ahad radiyallahu ci Koriteg 1974 la def discours bi tasanteeg mu doon xalifam Serigne Touba te yàggagul ci xilaafa gi amagu ca yaakaar naa juróom-benni at ya manqué na ay fan waaye muy daje ci mujjantalu nawet ci li ma ko teg yaakaar naa ne nawet booba ndox ma bari woon ci njëlbeen loolu la may niru kon yooyu dafa mat a xam dafa mat a taxaw tamit euh, kon ci ci ci zuruuf yooyu ci circonstance yooyu ci la doon waxee wax ji mu doon wax léegi muy zuruuf yoo xam ne nag dafa laaj ay taxawaay ndax nga jiite mbooloo mu toll ne almuridiya nga jiite mbooloo mu toll ne almuridiya xew-xew bu toll ne wee euh, xew-xew bu toll ne korite nga bëgg a wax ak ñi nga war a waxal yaakaar naa laaj na waxin waaye nga toll tamit ci di doog a ñëw war a am loo samp yaakaar naa loolu tamit lu mat a bàyyi xel la moo tax sëriñ bi boo xoolee discours bi da ngay xam ne discours bi buñ koy classé ci ci xeeti discours mën nañ koo tuddee discours diine ndax lépp ci diine la aju maanaam xitaab bi xitaab diini la buñ koy xool ci mawdu bi maanaam thème bi thème bi mu développé lenn génnu ci lislaam waaye lislaam nag ci déggiin ci déggiin wi gën a yaatu ndax déggiinu lislaam bu yaatu wi mooy pas-pas aqida mooy sharia mooy axlaq te discours bi lenn génn ci loolu kon xam nañ contexte bi ñu ko defee xam nañ xeetu discours bi muy def ndax xeetu discours discours politique am na discours économique am na discours leneen am na mais discours religieux tamit am na te su ko neexoon def beneen waaye bii moo dëppoo posture moom li mu doon waaye bii moo dëppoog ñi muy waxal bii moo dëppoog contexte bi muy wax euh, discours bi nag am ay liir yu ko composé maanaam yu ko yoo xam ne ci la toggaloo bu njëkk bi mooy discours bi sëriñ bi da ko laltaayal da ko wutal ab muqaddima da ko wutal ab muqaddima koo wutal ab muqaddima euh, bi mu ko wutalee muqaddima ba noppi mu leeral li ñuy wax plan mu leeral tomb yi nga xam ne moom la bëgg a waxtaanee ak nit ñi bi mu defee loolu ba noppi mu waxtaan ci tomb yooyu benn par benn bu mu ci àgg sëñ Abdou Lahad bi muy jàngalee ko ku ko topp fu mu jeexale tomb rek xam na ne dugg xam nga ne dugg na ci beneen maa du discours bu jaxasoo boo xam ne da nga naan waa ji lu muy wax nii wala mënuma koo topp mënumaa suivre man ku ko déglu rek da nga suivre ndax dalaa wax ne la tey dama bëggoon ñu waxtaan ci ñetti mbir bi ci njëkk mooy bu ñaareel bi mooy bu ñetteel bi mooy du noonu la wax buy waxtaanee danaan kon li may li ñuy njëkk a waxtaane mooy nangam wax ca lam ci bëgg a wax lépp su noppee jàll ca ba ca des su noppee jàll ca ba ca des te bu mu xas jàll du ñu del si waat xaw ma ndax seetlu ngeen ko mu den kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci discours beneen bi mooy bi mu weesoo loolu mu indi ab xaatima xaatima bi xam naa ñu bari ñuy xool discours bi mën nañ koo wër naan fu mu nekk waaye mi ngi ci xaj na suñ demee ba gën a détaillé danañ ko gën a leeral waaw euh, kon jàpp naa ne loolu mën nañ koo xam ci discours bi ni mu ni mu ni mu ni mu ni woo ni ko sëriñ bi tërale ci tëriñ tëralin wu rafet a rafet euh, bu loolu jàllee ñu ñëw ci muxaddima bi xool ba xam sëriñ bi nu mu ko tërale maanaam yaa ngi dégg sëñ Abdou Lahad mbokk yi déglul de mbokk yi mbokk yi ku ci bokkut mbokki jullit ñépp la wax xam nga korite kan moo ko moom ku moom korite jullit ñépp léeg la nga dégg sëñ Abdou di waxtaan ci màggal gi wax ba mu yàgg mu ne ngeen may ma nag ma waxtaan ak sama mbokki taalibe yi wala mu ne mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi fii de mbokk yi képp la fi wax yaa ngi dégg de innamal mu'minuuna ixwatu ndax li muy wax contexte bi muy waxee xew-xew la du xew-xewu màggal nga xam ne dañ koy askanale ci ñenn korite la jullit ñëpp mbokk muy wax ne mbokk yi kon loolu am solo la maa ngi leen di nuyu nuyu bi war sama digganteeg yéen yaa ngi dégg te di leen baalu xaq di leen ndokkeel ci weer wu barkeelu wii ñëw ba jàll ci jàmm foog naa noonu la ko waxee wala du sori loolu loolu lu ama am sola lañ ci mën a xoole xaj ne su ma demee ba ci kanam fenn fu ne danaa fa taxaw wax yan bind lañ fa mën a jël waaye yan orientation wala yenn tawjihaat la fa sëriñ bi eh, di joxe kon loolu mu jiital mooy mu bi bi muy leeral tomb yi muy waxtaane dafa wax ne dama bëgg ñu waxtaan ci ñetti tomb li gën a am solo nag ci plan bi walla xutta bi mu joxe mooy lim naan la dama ciy waxtaan ak yow da koy layal ñi xam technique gu analyse discours danañ xam ne argument li ñuy tuddee argument xujja wala burhan lu am solo la ci kiy wax nit ki soo koy wax dara da ngay indi ay lay yu koy dëgëral ñetti mbir laa bëgg a waxtaan ak yéen ngir dañoo xamul lu ko weesu dégg ngir dañoo amul lu ko weesu lay waangoo kon li tax ma bëgg a waxtaan ak yéen ci ñett yi mooy amuñ lu ko weesu mu ne benn bi mooy yàlla ju wow koŋ yaa ngi dégg ngor gu wér cëng ak lislaam ju mat sëkk mu layaat ngir dañoo amul ludut moom ak a ak yéeme booy waxtaan ak nit boo ko waxee dara boo wëttun mu ne la waaw lu tax loolu bala moo wax loolu nga ne nga indi say say say adilla ak say baraaxin kon euh, bi muy leeral plan bi indi na tomb yi mu war a waxtaane waaye boole na ci ay lay yu koy dëgëral yuy tax yow mi muy waxal nga nga nga nangu koo déglu no euh, déglu ko te nangul ko ñetteel bi ñetteel bi mooy mu ne muy li nu dal nun jullit yaa ngi dégg de waxut nun murit de ndax contexte bi korite la ñépp ko bokk mu ne muy li nu dal nun jullit te nu teg ko sunu bopp waxut nun murit kon yaa ngi gis ni muy bàyyee xel moom fi muy waxee ak xam ne lii xew-xew ñépp la àdduna sépp lay waxal war nañ koo bàyyi xel te di ko fàttaliku fu ñu toll ngir mu rafetal sunu doxalin yaa ngi dégg de waaw ni muy laye di di nga xam ne yow faaw rek da danga da nga a nangu li muy wax su fekkee lu la baax lu baax ñor na kon noonu la defee plan bi bi mu ci noppee nag daal di dugg ci biir tomb yi nag benn par waaye li ci gën a am solo mooy bi muy dugg ci tomb yi dafa tàmbulee ci tomb bi mu mujj tudd loolu ñiy discours war nañ ci taxaw dafa njëkk a tudd benn tomb yàlla ji woo koom ngor gi ak lislaam bi daal na li nga xam ne nag ñoo ko teg suñu bopp ñun jullit waaye bi muy développé troisième point boobu moom la njëkk moom la njëkk a tanaawu maanaam da caa jóge rek ñu jéggal ma ci kàddu gi daal di baraste ko jàll maanaam au lieu muy taxawaat di delluwaat ci un ba dafa ñëw ci trois bi tudd ko rek continuer pour yow doo nekk di di di di tuxalaat sa xel di demaat ci bu njëkk ba dangay ngay ànd ak moom rek ngeen baras loolu benn technique la bu tax mu def ko ci li ma jàpp damay jàngat rek na jàngatkat moom jàngatkat beneen bi mooy dafa concerné nit ki muy waxal directement nga xam moom li muy wax moom la concerné moom ci boppam la war a jéem defar moom ci boppam ba noppi wax ak moom ba noppi doog a jàll nag ci di wax leneen wala di ko wax ci li mu war a def feneen wala diggam ak leneen xaw ma ndax yéen a bàyyi xelam de looloo tax mu xool maanaam tartibul awlawiyaat xool priorité mu mu mu mu taxaw ja moo tax ci tomb boobu nga xam ne ci lay waxe li nga xam ne moo ñu moo ñu dal ñun jullit te ñu teg ko suñ bopp muy jéng boobu muy wax ci tànk yi ak buum gi ci baat bi kenn ku ne sa ñaari tànk a ngi ci ak ay ab jéng yemoo ca da wut ak buum takk ci sa baat da ko koo feddali saa yoo xëyee feddali ko wutu buum takk ci sa baat mu ne jéng bi mooy fi nga waxee ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad dane dellu waxaat ne fi nga waxee ne ashhadu an laa ilaha illa dellu waxaat ne wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xool xool xoolal lu rafet loolu ñaari tànk yi ar rabtu bayna shahadatayni wa rajlayni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu mooy jëng bi nekk ci ñaari tànk mu ne nga jëlu buum yeew ci sa baat buum gi mooy kenn ku ne ci yéen wóor na ko ne su xëyee dana jàkkaarloo yàlla ne allahumma inna nastainuka wa nastaghfiruka xool xool leen buum gi de wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxna'u laka wa naxla'u wa natruku man yakfuruka ma ngay dem rek allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli yaa ngi gis buum nga ak buum day gudd te doo yam mukk doo jóge fa nga nekkoon te neewoo laa ilaha illa allah wax wahdahu la sharika lahu lahu lmulk wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli ma ngay dem rek gis nga buum gi ma ndax yéen ngi bàyyi xel waxin wi ni mu ko ta ni muy niroole ni suwar yu rafet yi nga xam ne moom lay jëfandikoo lu am solo la de man ci man waaw euh, nga gis kon foofu ni fi sëriñ bi doxalee ci wàllu euh, bi muy wax ak Euh, bi muy wax ak doomu aadama bi mu ne nag képp koo xam ne ak buum ab jéng daa nekk say tànk ak buum nekk sa baat nga door a jóg dañ la da ngaa sa bopp nag parce que daf ne woon te ñun ñoo ko teg suñu bopp kon yaa jéng sa bopp jël sa buum def sa baat door a jot nee na da ngaa war a bàyyi xel fa ngay teg sa tànk nag di ko xool bu baax ndax nee na pakk yi file nekkut ci kaw ci suuf la nekk am solo la mu ne loolu nag. nañ ko bàyyi ci sunu yi ngir mu rafetal tënk na résumé ba xaatima marxal ya waaw allahumma inna nastainuka mooy buum gi comme naa junj naa ko léegi ak laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk loolu dana da nga ko wax juróomi yoon ci bis bi kon jéng bi mooy allahumma inna nastainuka ak laa ilaha illa allah muhammad wahdahu la sharika lahu yëng eh, mooy mooy buum gi yëng bi mooy ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu mu tëjee ko nag ne loolu war nañ koy te ci suñu doxin ngir mu rafetal ko gisoo yeewat la ne ko argument bu njëkk ba lay wa lay wam layoon ca njàll benn nga neen lañ ko lu tax ñu war koo waxtaane mooy nàngam bi mu demee bay tënk fa la del siwaat rek résumé point bu njëkk bi daal di mu war a jàll ci bi ci des waaye bala maa jàll ci bu ci des damay jël ay tuuti ay loo xam ne ay orientation laa koy tuddee wala ay ay ay la yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci point bu njëkk boobu bi ñu njëkk mooy mën nañ cee euh, dégg njàng ne sëriñ bi day jàngale na nit ki dafa war a fexe ba dig wala dër bi dox diggam ak sunu borom wala engagement yi ñu jël diggam ak sunu borom mu respecté ginnaaw yow yaa waxal sa bopp ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah taxaw ba mu yàgg nga naan inna nastainu ko wa nastaghfiru ko waaw waaw waaw jël say engagement kon da nga ko war a respecté kon loolu benn njàngal la bi ci des mën nañ cee jëlee njàngalew ne lislaam kat ndekete du wax ci làmmiñ rek waaye jëf ciy cër na ndax ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah wala nga naan inna nastainu ko di ko wax ndax warees na ko sàmmonte jëng bi ak ak ak ak ak buum gi doyut dañoo war a sàmmoonte loolu ci sunu dox yi mooy dañ koo war di jëfal kon lislaam du waxi kese jëfa nga ca biir mën nañ ci dégg tamit na doomu aadama bu ne ay pakk-pakk yoo xam ne mën naa dox diggam ak jaamu yàlla ni mu a mi ngi ci kanamam te su ko bàyyiwut xel jëlut ay matuwaayam mën na caa daal beneen benn mooy xam bakk-bakk yi fiñ ne dana tax nga man koo moytu ndax nee na lii newut ci kaw ci suuf la yow nag soo dee xool lii fële ca kaw da nga dal ci lii fële ci suuf kon xam fi bakk-bakk yi ne sëriñ benn ñu koy jàng bi ñu des mooy ñu xam ne doomu aadama mooy responsable ay jëfam surtout jullit ginnaaw yaa jël sa engagement bopp kon xamal na yaay sa responsable jëf beneen bi mooy mi ngi ñuy jàngal ñu dox jëm ci luy rafetal sunu doxin ndax wax na ko ci njëlbeen nga wax ko ci mujj kon loolu ay ay benn nat la ci li nga xam ne mën nañ koo jànge wala mën nañ koo taataane ci loolu nga xam ne sëriñ bi moom la wax waaye nag euh, point boobu dafa am ay ay yum jagoo wala yu ko ràññee ay mumayisaat wala ay xasaais yoo xam ne mën nañ ko cee jàngate bi ci njëkk mooy tàmbuli tàmbulee ci mbiru ki mbir mi concerné maanaam booy wax ak nit mbir ma concerné ko bala ngaa jàll ca këm ko séqal wala leneen la ca aju da wax ak moom directement ba pare doo ko jàll ci leneen waaye sooy wax ak moom it da ngay moom ca la solo doog a jàll ca leneen te moom la sëriñ bi def mooy tàmbulee ci tawxiid mooy wéetal yàlla foog naa sëriñ bi loolu la waxoon awalu waajibin ala al murid taxsilu zaadihi min at tawxiid foog naa noonu la ko waxee woon looloo taxoon mu ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxiidu rabbina ala ittifaaqi kon tawxiid mooy mooy début bi ad'u ila al ilahi bit tawxiidi wa ma ra'aytu anhu min maxiidi kon tàmbulee ci li nga war a tàmbalee ba tey bokk na ci ndax sëriñ bi maanaam naa tàmbalee feneen waaye daa xool li gën a yell gën a jaadu mu tàmbalee ci liñ ci mën a jàngate ci ay mumayisaat wala lu koy ràññee mooy généralité bi am ci commencement discours bi te leeraloon naa ko mooy mbokk yi gi loolu tamit yaakaar naa discours bi ràññee na ko ndax du ay discours am yëpp mën a tàmbale loolu waaye bii nii mbokk yi la ko tàmbalee. gis naa ne bi ci tabaski gi te sës mbokk yi rek la wax wala boog yéen mbokk yi loolu laa ci seetlu beneen bi mooy te loolu ci biir explication bi leeral naa ko ci mooy yeewat la gim yeewat la diggante yu rafet yooyu mooy yëngum ñaari tànk yi ak ñaari baati seere yi ak xunuut bi ak ak ak buum gi te loolu lu am solo loo xam ne foog naa ñim doon waxal war nañ koo man a bàyyi xel ak yeneen yoo xam ne ci tomb boobu man nañ ko ci xoole gis ko ci xam ne lii moom particularité la ci ci ci discours sëriñ tomb ñaareel bi tomb ñaareel bi foog naa mi ngi ci doon waxtaane yàlla ju woo koŋ la wax du noonu la ko yàlla ju woo koŋ ju dara kooju kooj sëñ bi waroon nañoo leeral lan mooy kooj man xaj na sama xel dem na ci ay lu bu dara jaxasoowul ak wala yu mel noonu daal ju sell yàlla ju mat sëkk ju dara kooju euh, foofu sëriñ bi fi mu tàmbalee mooy mu daan lay convaincre ci ci tàmbali kay ci tàmbali bi moom la la la la la la la tegal ay lay yoo xam ne daanaka da ngay daan ne rek kon noonu la yàlla moom li mu def dafa leer nañ waaw dafa set wicc leer nañ wér cëñ gis nga buur bu toll yàlla ñu ne moom li mu def dafa set wicc leer nañ wér cëñ daal di tàmbali développé nag leer nañ wér cëñ sew euh, euh, set wicc gi naka la demee moom mu ne li mu def ak ñun mooy yonent bi rek la jël ne cirib fi kanam ne cirib cirib moom xanaa ku nekk ci kaw koy def ne cirib fi suñ kanam dégg nga de neewut biir fi kanam imaamul mursalin ne cirib fi suñ kanam yaa ngi dégg euh, bi mu ne ko kirib fi suñ kanam. dana attirer sa attention waaw. bi mu ne ko kirib fi suñ kanam daal di ñëw mel na ku ñu présenté diggante boobu diggante bu am solo la nag scénario la maanaam genre film mu lay néew bu am solo la dana kirib yonent bi suñ kanam joxal ñu ko. huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diinil xaq li yuzhirahu ala diini kullihi walaw kariha almushrikun tegaat ca nag huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diinil xaq li yuzhirahu ala diini kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadun rasulullah kirib nañu ma ngoo daat nañu man yuti al rasula faqad ataa allah loolu la ca teg yaa ngi gis kon présenté nañu yonent bi daal ñuy jox ay ay ndigal daal di wëlbatiku ci biir discours bi sëñ sëñ sëñ sëñ Abdoulaye gisoo léeg-léeg mu ne mu wëlbatiku gisoo di waxal ñun nañu yonent baa ngi nii man ñu joxe sa ko daal di wëlbatiku ne ko wa nazzalnaa alayka al-kitaaba tibyaanan li kulli shay waaw daal di wëlbatiku la wax sax ci discours wa bil xaq anzalnaahu wa bil xaq nazal tam bàyyi wax naa ñee la war a wax ak ñoom ba noonu ñëw na ci moom wax kon ne wàccee na ko wax naa nit ñi wax naa moom ku ci des kan moo ci des ku war a wax ah kan moo war a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lim njëkk a wax ak ñun mooy in tubdu shay'an aw tuxfuhu fa inna allaha kaana bi kulli shay'in alima loolu la ñu njëkk a wax moom kon moom moo war a wax fi mu ne waaw in teg ca ne in yasha yuzhibkum ayyuhan naas wa yaati bi aaxarin dellu ca teg ne yaa ayyuhan naasu antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyyu alhamid in yasha yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid wa ma dalika ala allahi bi aziz gis nga yonent bi moom it jël na waaw waaw ñëw na moom it wax allah am na solo lool lool lool am na solo nga gis ne euh, foofu moom laa naan la kii bu neex la day mel ne ab jataay la doon niru waaw jataayu euh, boo xam ne xeetu réunion bu ñu woote woon la wala lu koy niru assemblée waaw wala assemblée générale wala lu koy niru léegi dafa mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom bi mu waxee ak nit ñi wax leen ci mbirum suñ borom naan leen bu ko neexee jële leen fi indi fi ñeneen nga fi mu tàmbalee waaw faaw mu xaw a xuppaate tuuti in du shay'an aw tukhfuhu fa inna allaha kaana bi kulli shay'in alim in yasha yudhibkum xaw leen a xupp mel na nit ñi ñoom dañuy taxaw di ko laaj naan ko waaw kooku mooy kan ki ki ngay wax nii kan la mu ne daalikum llahu rabbukum laa ilaha illa huwa xaaliqu kulli cheyin faabuduhu wa huwa ala kulli cheyin wakil laa tudrikuhu l absaar wa huwa yudriku l absaar wa huwa latifu lxabir xad jaakum basairu min rabbikum fa man absara fa li nafsihi wa man amiya fa alayha wa ma ana alaykum bi xafid yonente bi loolu la leen wax moom waaye yëmu ca ba tey mu di dafa sëñ bi dafa mel ne foofu daf ne ah lisaanul xaal nag mënu koo ñàkk laaj ne ko kooku kan mu ne zaalikumullahu rabbukum yëmu ca muy dolli allahu alladi xalaqakum summa razaqakum summa yumiitukum summa yuxyikum hal min shurakaikum man yafalu min dalikum min shay daan ne amut amut baatu amut moo ko wax daan ne subhanahu wa taala amma yushrikun hal min shurakaikum man yafalu min dalikum min shay daan ne amut subhanahu wa taala amma yushrikun yaa ngi gis bi mu waxee loolu ba noppi nag sëriñ bi teg ci ne euh, lii ku ko xool maanaa yi rek laay wax fi mu ne du ma mokkaluma discours waaye maanaa ku xool lii jiitu danga xam ne suñ borom kon buur bu màgg la borom kàttan la lii mu def nii borom kàttan na koy def allahu alladi xalaqakum summa yumitukum summa nanga waaye mu ne waaye loola de du dara fa suñu borom lii ma leen wax nii muy niru lu rëy lépp ci yàlla du dara ci suñu borom ndax maa xalqukum wala baasukum illa ka nafsin waaxidatin ndax wax na fi lu wér lu na am ñi muy waxal jàpp ne kon loolu rek mooy li li am daal wax na li am mu ne leen déedéet lii ma leen wax lu ndaw la ci mbiram ndax maa xalqukum wala baasukum illa ka nafsin waaxida daa di ciy teg ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar wa maa amruna illa waxidatun kalamhin kalamhin bil basar kon mu ngi leen di wax ne leen xam ngeen ne mbind bi ma leen di bind ak dekkil ma di dekkil moo yéen moo def ko ci kenn ñooyam mbir mu may defit mi xef ak xëppi lépp lu mu rek lu mu rëy rek mi ngi mel ne xef ak xëppi man bëgg na leen a wax dayoo sunu borom subhanahu eh, wa taala foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko suñ borom yónnee ba mu wax ak nit ñi ba mu wax ak ñoom ba jàjji leen leeral leen mbirum suñ boroom ba noppi mu ne nag yàlla suñ tollee noonu te ñun ñuy ay càkkeefam ay càkkeefam maanaam ay jaamam yun xeebu nekk ci agronome kon yërmandeem ak mbaaxam su taxee mu naan ñu fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun nee na loolu dañoo war a daw ba rëkk ko ndax buur bu mage nii baree kàttan nii lii mu def lépp mu ne illaa kalamhin bil basar kon su naan fazkuruni azkurkum maanaam mel ne ko ñuy kii nee na noonu loolu moom yërmande rek la yërmande képp moo ko war mu teg ca ne euh, wala takfuruni ji nag fazkuruni azkurkum washkuru lii wala takfuruni mu ne loolu sax li ma ko soosu as ngir ko sax la ko indi tudde njëkk ko soosu nag li ko ci indi mooy mu ne xam nga sunu borom subhaanahu wa taala lépp lu aji ci ñun moom yërmande rek la ko def la koy des ci ñun lay des moo tax suñu borom ne wala takfurun wala takfurun yi boobu nag mu ne li ci sunu borom jublu mooy fa ida massal insaanu tur daana li janbihi aw qaaidan aw qaaiman falamma kashafna anhu durrahu marra ka an loolu mooy walaa takfuruuna bi dañoo baaxoo suñu ameew lor dellu ci yàlla su lor wa jàllee du woon mu ne looloo tax yàlla wax walaa takfuruuna mooy in takfuru kon nag fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al wa in tashkuruhu yardahu lakum maanaam day mel ne bi mu nee fazkuru nii azkurkum washkuru lii wala takfurun day mel ne nit ñi mën nañoo jàpp ne suñu suñu defee kufru mën naa wàññi yàlla dara moom da cee am problème daal ci an yag an yag furu mu ne in takfuru fa inna allaha ganiyyun ankum wala yarda li ibadihi kufr loolu mooy tontu moo tax mu ne loolu moo ko ca moo ko ca indi kon ak ay mbir yu bari yoo xam ne point boobu làmboo na ko te lépp jëm ci diggante Euh, sunu borom ak yërmandeem ak xéewalam bu mu am ci doomu aadama mooy yónni leen ab yonent mu ñëw wax ak ñoom teg leen ci yoon wan leen dëgg te lépp aju rek ci nu ñuy def ba jaamu yàlla subhanahu wa euh, tomb boobu su ma ñëwoon doon ci génne ay jàngale yoo xam ne dama ciy teg baaraam yaakaar naa mën naa cee tudd rek ñi yenn bi ci njëkk mooy nañ xam ne suñu borom sëñ bi nit ñuy jàngal ne suñu borom waajal na mboolem condition yi tax nit ñi mën a jaamu yàlla waaw bu fekkee daf ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduune fexe na moom ba boole ñoo ku ñu xamal ni ñuy jaamoo yàlla ku ñu gindi ku ñu ku ñu giide yonent bi tim jiitu gim jiitu jiitalul boppam yàllaa ko jiital looloo mën nañ koo jële fii comme am njàngale yaakaar naa junjoon naa lu mel noonu ci euh, li ma doon wax léegi war gi ñu war a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu su nekkoon dafa am cadre juridique maanaam itaar qaanuuni ñu ne ci suñ borom la jóge texte bi mooy man yuti rasula faqad ata allah kon loolu am na cadre juridique beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi mi ngi wax ne moom li ko war a moom def na ko ndax lii mu wax lépp ci ay leeral joxe ay détails xuppe wane yu aw yoon loolu lépp foog naa ku defut li ko war du ko def waaye yonent bi tamit am na xam na yoon wi ñu war a jaar ba jëflante koo xam ne dafa bees ci am mbir ndax gis nga fi mu leen jaar xaw leen a man xaw a jàjji tuuti wax leen kattanu suñu borom mi nga xam ne moom lañ war a jàmm ngir ñu xaw a am tuuti yëg-yëg ci ne ñoom ñu suufe lañ ci yàlla te moom rek lañ war a jaamu lépp rek mi ngi ci jublu di jëmbat tawxiid ci ñoom ak di ko suuxat waaye bokk na ci tamit euh, war gi ñu war a sàmmonte ak fugloonteeg bàyyi xel melokaanu yàlla yi ak kattanam ak war giñ ko war a jaamu nag te bañ a waru ci yërmandeem ju yaatu ji waaw yërmande yàlla ju yaatu ji ba tax mu naan ñu fadkuruni adkurkum waruñu cee waru ba tax duñ ko jaamu kon loolu ay jàngale la yoo xam ne ba tey mën nañ koo jële ci tomb tomb ñaareel waaye ci mumayisaat yi wala ci xasaais wala ci yi nga xam ne daa discours bi point bi da ko dañ ko cee ràññee bokk na ci mooy sëriñ bi tànn yim tànn tànn gi muy tànn melokaani baat yi muy jëfandikoo foog naa li mu doon wax léegi euh, euh, euh, jëfi yàlla li mu def dafa set wicc leer naññ wér cëng mooy comme la mu doon wax fële l'islam ju mat sëkk ngoor bu wér wér cëng ak yàlla ju wow koŋ mooy dafa dafay rafetal nu muy tànne ay ni muy melale baat yi day mel ne baat bu ci ne lam ko jox ci melokaan su jëloon beneen baat ba jox ko leneen day mel ne da nga yëg ne joxoon ko bële mooy gën moo tax mu def loolu waaye bokk na ci kii bii li mu ràññat la mooy jël gi mu jël alxuraan firiwaat ci alquran mooy li borom xam-xam yi di wax tafsirul qur'ani bil qur'an wala takfuruuna ji mu ñëw leeral lan la ci suñu borom jublu muy fa isa masal insaanu ga ak in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum loolu ba tey ci li ràññeet le tomb bii la waaye bokk na ci li ko ràññeet le mooy li ma doon wax léegi maanaam chronologie bi tas tasalsul zamani gi am ci euh, euh, maanaam loolu di niru film nga xam ne wàccee gi jiital gi digle nañ ko topp yonent bi wax wax ak yonent bi ci lim ko yónni yonent bi wax ak ñi ñu yónni ci moom xupp leen ci tàmbuli doog leen a woo ci wéetal yàlla tawxiidul uluhiya la leen njëkk a woo summa tawxiidu rububiya yàlla dañ koy gëm nangu koo jaamu moom képp ndax moom moo yeyoo jaamu ndax tawxiidu rububiya yéen a ngeen ko xamee boroom xam-xam yi wax ko nit mën naa am tawxiid boobu te du am tawxiidul uluhiya ndax ñi nga xam ne nanguwuñoo jaamu yàlla nat tablewuñ ne yàlla am na moo leen bind mooy taw nat tablewuñ ko waaye nanguwuñ koo jaamu tawxiidul uluhiya mooy nga wéetal yàlla ci jaam loolu nag ku ko xas am rek am nga tawxiidul rububi moo tax mu jiital bi doog caa teg ba loolu tamit lu ñu mën a jàpp euh, ci ci ci ci loolu bu dee ci ñetteelu tomb bi muy euh, ngor sëñ bi dikk nga ci lu am solo ab gor as gor as gor akub jullit kon ngor akub njullit as gor mooy am ngor ab jullit mooy am ak ak njullit euh, sëriñ bi dafay wax ne ngor ak euh, jullit lim njëkk a rek mooy valoriser ko maanaam wane ne lu ama am solo ndax euh, mënee su koo mu dem ba àgg ci ne koo ne doob gor wala doos jullit suñ gaawul bopp toj fa wala yat jóg fa daal ciy teg nag te ñooyee nag kon mi ñu lay tàmbali gis nga buy tàmbuleeg yow ci li muy wax yow da lay da dalay dalay da lay jéem a convaincre ci ci tàmbali bi yow ba nga xam ne wax dëgg yàlla da sawar ci ci da nga xam ne lii mu lay wax lu la amal njariñ la daal parce que discours dafa war a amal njariñ waa ji nga koy jox nga xam ne yow ngorakum njulit kon mënoo koo ñàkk mu ne te nooyee nag koo ne doob gor wala doo jullit bu ñu yeexee rek bopp toj wala aw yat kon euh, ci wàllu waxtaane ngorakum jullit sëriñ bi daf cee wax ne ngorakum jullit mënee koo xame ci lu dul diggante nit ki ak boroomam ak diggante nit ki ak moroomam kon ku bëgg a xam as gor jullit da ngay xool ni muy jëflante digganteem ak boroomam waaye ni muy jëflante digganteem ak moroomam euh, bu dee ni muy jëflantee diggam ak boroomam ca la njëkk a waaye li ma doon wax léegi rek toujours day xool fan lañu war a tàmbalee mu tàmbalee fa Euh, ngor diggante nit ki ak suñ borom subhaanahu wa taala bi dafa wax ne doomu aadama yi loo foofu yaakaar naa fi la fi la fi la fi la li ma doon wax ci njalbeen gi ne yaakaar naa ne discours bi ci mujjug nawet la foofu la feeñ te yaakaar naa ne nawet booba bëriwul woon am ndox ci tàmbali bi ndax foofu fi la sëriñ bi leerale naan fan yi jàll dégg naa jumaa joo romb ñu naan nañ maase ci tuub sàkk sarax tey balante xaar mu ne bañ ko defee rek ca saasa la suñ borom wallu waaw ca saasa rek la ñu suñ borom wallu dimbale ñu ndimbal loo xam ne tudd tub taw nag waaye luy nirub taw kinaaya anil matar maanaam rot na ci wax ji waaw mooy la muy wax naan dimbale la loo xam ne ni kenn mënu koo miim ba ba mbooy ga nga dendal sax déggoo muy wax waaw mbooy ga nga dendal sax da nga xam ne bokkut ci sag moomeel defaale na ko fa te su su ca bokkoon nit mu defal la ko kon xam nga nag ak taw lay wax ginnaaw nit ñi nag ñi ngi doon balonte xaq di wax tuub ak nangam nangam foog damaa jàpp ne jamono jooju maral daa amoon waaye bañ maralee la suñu borom sotti ndoxum jàmm mu teg ca nag ginnaaw nag suñ borom def na loolu nag ba mu ko defee ba noppi nag daf caa teg ñaari baatam mooy wa aatu xaqahu yawma xasaadihi wala li ma waxoon tamit ne yaakaar naa ne mujjul nawet war a jot foog naa ne manees na koo xeeñtu foofu moo tax mu ne ba mu ko waxee ba pare da caa teg ñaari baatam benn bi mooy wa aatu xaqahu yawma xesaan yi mu leeral nag li tax sëriñ bi suñu borom wax lool mooy asaka ni mu demee ci alal ni mu demee ci alal mooy képp koo xam ne dangaa am alal asaka war ca soo ko génnee da koy yokk soo ko génneewut da koy wàññi misaal na ko ci lu leer koo xam ne dangaa bayoon am juróom-ñett fukki am téeméeri bërigo fukki bërigo war ci asaka sa càggante tax ba nga génnee juróom-ñeenti barigo yi asaka fàtte benn ba mu des ca biir nee na benn booba daa waroon a génn kon des gam fa des dalay lor ndax day wàññi la fa waroon a nekk nee na bu déwénee nawet bu baax wala njàmbaar mënulaa may lu toll ne la nga amoon daaw juróom-ñett fukki barigo daal doo ko wees waaw moom wàññil na la ñaar nga gis lu am solo nawet akum njàmbaar mayewut gerte yàlla mooy maye gerte dégg naa xissa buñ ci doon nett li njaareem bi ci sëñ Ceerno Mbàkke gerongal laa ko dégg woon yàlla ko yàlla yokk ay leer euh, buñ xissa buñ ci doon bu mu ci doon nett li ne sëriñ bi bi mu nekkee ci njaareem daa xëy xëy rek gis penc mi mel ne lu fees ak ay mbooloo daal xujur xujur yi bari mu ne lu xew ñii lu ñuy def ñu ne dañuy baaw naan mu laaj lan mooy baaw naan nee na nit ñi wax ko ko mooy dañ ne bu bu bu yeexee taw wala ñu soxla ndox dañuy génn sàkku ci suñu borom daal mu may leen taw mu woolu nit ñëpp bañ ñëw mu def ab discours bu am solo wax leen ne yàlla mii de su ko neexoon muy taw te dara du ñor su ko neexee du taw te dara du jeex waaw kon dellu leen fa ngeen nekkoon sax ci ndigali yàlla yi te bàyyi ay tereem te ngeen xam ne ki mu dénk taw bi yéen yéenay def lu mu leen digalul waaye moom du def luñ ko digalul bu ma fi gisati kenn mu ñëw naan day baaw na kon loolu day dëggal lii sëriñ bi wax ne bu déwénee ak njàmbaar mënu laa nawet bu baax mënu laa may gerte kon asaka ji nga a génne looloo tax yàlla téye loolu foog naa lu mat a xel la ci waatu xaqahu yowma xasaadi yi mu teg ca wala tusrifoo ji wala tusrifoo ji am na lu mu ko layela walaw basata allahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard walakin yunazilu bi qadarin ma yacha mu ne boo ca génnee la nga ca weer a génnee ba noppi nag la ca desit nee na suñ borom yàqulu ko nag da nga koy def fi nga ko war a def nag jëfandikoo ko ci anam gi nga ko war a jëfandikoo mu ne nag lii daal jàpp na ne moom mooy ak ngor sa diggante ak sa borom mooy ak julli ndax yàlla dangaa soxla ñaan ko mu may la nga am nawet mu ne la génneel asaka dangaa war a génnee asaka loolu daal mooy ngor nag sa diggante ak sa borom moom ngoroom jullit turu mu ne bu dee sa diggante ak sa borom nag lam jàpp ne moo ci ngor akum jullit mooy bu ko tooñ te soo yégee ne tooñ na nga jéggal ko te yàlla tax nee na loolu mooy ngoro bu jënd teg ca beneen mooy soo demee ba am soxla dem diis ko ko mu jàppale la ca ba sa jamono féex saa su sa jamono féexee na nga fexe ba la ngeen séqoon nga delloo ko te nga fexe ba mu bañ a yeex ndax nee na soo négee ba mu fàttali la ko kat ba mu yeex wala mu gudd ba àgg fu mu wërta àgg li ngay bañ dong moo ca mën a tukkee mooy doos gor doof jullit te bu boobaa nee na ramkoñ yi tuuru du tax nga dib gor du tax nga dib jullit yat wu rëy du tax nga dib gor du tax nga dib jullit kon nee na sa digganteek sa moroomu jullit ngor ak njullit mooy bu ko tooñ te su la tooñee nga baal ko te lu ngeen séq nga fexe ba mottali ko ca gën jaa anam bu mu teg ca nag nekkoon nañu gore nañu am ngor nañu am jullit maanaam mi ngi résimé xam nga wax na sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa moroom léegi point léegi nag nan am ngor nan am jullit ci ci ci ci ñaari diggante yooyu yëpp mu ne suñu ko defee yàlla daal di ñuy dimbale ca saasa maanaam nga xam ne loolu moom da cee teg moom ndimbal li moom ngorokum jullit suñ ko amee ndimbal li moom sikkuut ndax suñ borom nee na in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum képp koo xam ne dimbale nga yàlla yàlla dimbale nee na nag dimbalul yàlla weesuwut nga jaar fi mu bëgg rek soo jaaree fi nga bëgg fi mu bëgg mu jaar fi nga bëgg mooy wa yusabbit aqdaamahum mu dëgëral la seeni tax mel ni nit ñi dañ naan ko yàlla moom anama moom num ñuy kiyee mu ne leen yàlla yéen a ko sori waaye moom soriwu leen ndax wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daai nga gis li mu ni mu ni mu jëlee point boobu moom it muy diggante ngorokum jullit sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa morom ba fi mu daanoo ci jox leen ay recommandations nañ am ngor nañ am njur kon foog naa tomb boobu tamit yaakaar naa euh, ci lu gàtt rek mën nañ cee génnee moom it ay njàngale ndax dañuy bari njàngale yoo xam ne ci biir développement bi da nga ko ci déggee waaye pour mel ne ku ko xaw a foog naa dana ci am solo mooy mën nañ cee jànge sëriñ bi mi ñu ciy jàngal ne ngorokum njullit ci suñ dund la bokk waaye dafa néew lool mu ngi ci biir discours bi lu koy wane waaw ginnaaw noonu la war a deme ci ñun te demeetul noonu ci ñun nag moo tax ñu war koy waxtaane mooy kon bëriwul loolu la wax suñ dund gi la bokk te euh, bariwu fi moo tax ñu war ko waxtaan maanaam euh, ko mën nañ mi ngi ñuy jàngal ne ko lu ñuy jëfe la du ay wax ndax bi la suñ borom defalee lim la defal ni koy sante i'malu ala daawuda shukran mooy wa aatu xaqahu yawma axsaanihi wala tusibu loolu jëf la la nga séq ak sa moroom jaar jëf la du waxi kese am naa ngor walla as laa ab jullit laa la bëgg a wax ne doyut kenn du ko wax dañ koy jëf mën nañ cee jële bindu timit ne tuub dellu ci yàlla ak sarxe ak baaloonte àq ah lu gaaw la ci am ndimbalal yàlla moom ndax ni mu ko waxee rek nee na bañ ko defee rek ca saasa la leen yàlla dimbale ci faskuru ni azkurkum waaw istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum midrara loolu la alquran wax suñ borom tamit sëriñ bi mi ngi ñuy joxañ ne ku am kattan la mën na lépp te soxlawut ndimbal mi ngi ci biir discours bi ba tey ba mu lay dimbale dimbale na la ndimbal lu wóor te néewu la fan laa la koy defal néewu la ku ma lay booleel tamit kon mooy moom li muy def xam na ko te mën na ko sëriñ bi mi ñuy joxañ loolu ba tey waaye génnee asaka ci sant yàlla la bokk waaw ndax su la nee wa aatu xaqahu yawma xisaadihi wala tushrifu cant ga mooy nga génnee asaka kon ci cant la bokk waaye génnee asaka day dolli alal ñàkk gaa génne da koy wàññi loolu moom du lu ñuy nattable moom mooy tandi ko yàq tamit ci sa alal même boo ko moomee waroo koo yàq ndax suñ boroom day bañ yàq junjoon naa ko léegi mbay mu bari ak njàmbar mayewu ko sëriñ bi mi ñu koy joxan taw bu bari tamit mayewu ko bis bu set nga gis nawet bu baax taw bi bari nawet bi jeex ñu naan waaw taw bi moom lu mu jariñ kon suñ borom moo yorum nawet aju ko ci taw aju ko ci ñàkk taw ci coobareem ak kàttanam ci la ko aj euh, ndimbalal yàlla ni ko sëriñ bi waxee rek mi ngi ci topp ndigal yàlla képp ku topp ndigal yàlla na nga xam ne danga nga am ndimbalal yàlla te loolu la sëriñ bi jàngale sunu borom ku ñu jege la wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib mas na maa dégg benn borom xam-xam bu bu bu kii bu am bu am dayoo di wax lu mel noonu di wax baatu baatu laaj yi nekk ci alxuraan di wane ni yàlla jege mu naan foo gis alxuraan mu wax wàllu laaj rek dana am lu dox diggante ak tontu la yasaluunaka an il anfaali qul qulil anfaal yasaluunaka an il maxiidi qul huwa azan wa yasaluunaka an il yataama qul waaye wa isaa saalaka ibaadi anni fa inni xarib néewut fa qul nga gis ne kon moom yàlla moom digganteem ak laaj bi ak tontu bi wutul ci intermédiaire kon loolu tamit sëriñ bi mi ñu koy jàngal discours bi nag parti bi li mu li li ko ràññee dëgg-dëgg te gën cee fës mooy dafa amuk waaqee ya daal da ngay gis sëñ bi ni mu ci ni mu ci dundee jamono ji maanaam ni mu xamee li xew ci jamono ji romb ci jàkka yi ñuy wax naan nañ sàkk sarax nañ baalu xa baalonte te nañ sax ci tuub waaw ngay gis ni muy waxee maanaam xam na ne kenn ku nekk àll bi mënoo koo bay am na fooy yam ba mbooy sës ci yow yu mel noonu ay ay ay misaal la yoo xam da xam ne kii dund na baatu gerte sax sëñ bi sëñ sëñ Abdoulaye baatu gerte gis naa ko ci euh, bi muy wax euh, li nga war a génne ci asaka wax na gerte ga des ca xawma lan gerte nga xam ne moom euh, li nit ñiy dund moom mi ngi koy dund di ko xam parti bi loolu feeñ na ci te dafa sàmmoonteeg loolu tamit ci bi muy wax ak buy joxe ay misaal ndax nit boo koy jox ay misaal danga ko koy jox ci lim xam ak ci lim dund bu leen doon wax loo xam ne bu noppee dañuy ñëw di ko wër di ko laajaat du sotti waaye képp kenn ku nekk bu la waxee dana la ca jàngalaale nga bay am téeméeri barigo fukki barigo yooyu war a doon asaka ja mi ngi lay jàngal fukk yu ne benn yàlla dogal nga juum fàtte ca benn ba fàtte woo juróom-ñett ya benn ba dong ba ca gën a néew nga fàtte teewul affaire ba du mel na mu war a man kon loolu lu lu am am solo la beneen bi ci tegu ci li ko ràññetle parti bi mooy tëj gi mu ko tëjee wala résumé bi mu def ci mujjantal gi tam def ko ay tawsiyaat li ñuy tuddee ay recommandation ay ndigal yu mu leen jox mooy nan am ngor nan am ngor nan am njullit kon loolu dafa mel ne ay ndigal yu muy joxe la waaye mu boole ci boppam loolu sax su ma demee ba ci euh, al al mumayizat al amma dana gën a leer ni ngay gisee sëñ bi buy discours moom da ciy bokk ndax loolu ci technique bu discours la bokk sooy def xitaab doo toog fee mel ne bokkoo ci waaw doo nekk naan yéen nit ñi jaamu ji leen yàlla nanga ma nax déedéet da nga naan nanu jaamu ji yàlla loolu ngay wax nanu sax ci tuub nanuy baloon te xaq waaye doo nekk rek di wax nit ñi mel na yow da nga cee bokk technique discours bu baax du loolu wala moom nga koy wax ci wax yoo xam ne yow kenn du la ci génne waaw doomu aadama bu ne war naa sax ci tuub yow génne woo ci sa waaye naan dee leen loolu moom baaxul ci discours te sëriñ bi da ngay gis toujours danaan nanu nangam loolu lu ama am solo discours am euh, ci wàllu fannul xataaba dafa riche ci ci anam bu yéeme. boo demee ci yi ràññit la dis discours bi te te nga xam ne nag yu général la nga xam ne xam nga li ma doon wax léegi damay wax tomb bu ma wax wax la ko ràññat la waaye nag yi nga xam ne ñoom boo leen lënkalee dañ koy bokk moom laa bëgg a tukki tuuti la bi ci njëkk mooy discours bi originalité bi originalité bi li ma koy tudde mooy dellu gi dellu ci delloo gi ko delloo ci alquranul karim lépp nga xam ne mooy mooy aslul ahkam wala aslu sharia moo tax ñu ne asalatul xitaab dafa dellu ci aslu sharia al islamia mooy alquran discours bi amatul xadis xadis ci usuli euh, sharia la bokk waaye alquran mooy numéro un mooy li ma la wax tartibul awlawiyat dafa xam ne lim soxla lii mën nag koo may fii la mën a tàmbalee mën nag koo may mu yem fa bu ëllëgee rek mu defaat leneen gisuma ci benn bayit bu Sëriñ Tuubaa wax fukki aaya ak juróom-ñeent yooyu alquran mi ngi ci ci discours bi fukki aaya juróom-ñeent kon asaala bi mooy tënk gi mu ko tënk ci alquran waaye lépp rek dëppoog njàngum na ak tajriba shaxsiya loolu mooy asaalatul xitaab euh, maanaam li ñuy tudde waaqe yegi maanaam sàmmonte gi mu sàmmonteeg maanaam waaqe maanaam ñi muy wax réalité yi waaw li xew ak li am ak liy dëggantaan ci jamono ji boo xoolee toujours da gis rek misaal yi ñuy joxe da ngay gis ne kii li muy wax ñi ngi koy waxal xam nañ ko ñi ngi koy dund te loolu mooy li xew daal waxut loo xam ne du luñ xam li muy wax lépp luñ xam lay doon waaye beneen bi mooy euh, discours bi ni mu làmbe maam li ñuy tuddee ak chumulier xitaabun chamil akuk umumiya dafa général maanaam sumuliya gi li ma koy tudde mooy li mu war a làmb ci ay point da koo làmb mooy lislaam maanaam sharia ju mat sëkk ginnaaw aqida ak jikko umumiya gi mooy li ni mu ko boolee ni ko boolee nit yi maanaam boole gi mu ko boole mboolem jullit ñëpp gë gën naa weesu foofu ndax discours bi xitaabun aalami aalamiya am na ko discours ndax shay'un aalami mooy loo xam ne laa yaarifu zaman wala makaan ba mu ko defee léegi lee mat foog naa juróom fukki at te ba léegi ñu ngi koy waxtaane di ko jëriñoo fii ci Touba mën nañ koo waxtaane Amérique jëriñoo ko kon aalamiya mooy loolu aalamiya mooy lu xamul place euh, nga gis ne ci biir liy tegtale ne dafa dafa dafa dafa ndax ay joxañ rek laa ci def dangay gis mu ne euh, ngorokum jullit xam nga ak jullit jullit yëpp a ngi ci biir sa digganteeg sa moroomum jullit li nu dal ñun jullit yëpp yëg naa ne mboolem kuy jullit kan moo ci mën a génne woo neewut li nu dal ñun murit li nu dal ñun sénégalais li nu ñun jullit képp kuy jullit yaa ngi ci biir bokk na ci li li li ràññat le bi mooy tënku gi sëriñ bi tënku ci thème bi mu doon waxtaan ak tënku gi mu tënku ci plan bi mu wax ah thème bi moom li mu doon waxtaane déggu leen fi benn yoon mu génn thème bi mu doon waxtaane waaye lim nañu woon moom laay waxtaane lii ak lii ak lii indi na lépp bàyyiwu ci benn kon loolu tamit lu am solo la li ngeen di tudde al xuruju min al mawdu anil mawdu moom defu ñàkk a respecté plan parce que nit ki léeg-léeg mu ne waaw tey nag damaa bëggoon ñu waxtaan ci ay mbir nangam ak nangam ak nangam ak nangam bu waxee ba daanee ñett ya lay wax fàtte na ñaareel wala mu jël bu njëkk ba dem ci bu mujj ba ñëwaat ci bu ñaareel bi dem ci bu ñeenteel bi ñëw ci bu ñetteel bi waxe sëriñ bi nag moo amul te li ci gën a yéeme mooy doo ko gis mu yor ordinateur wala aw këyit wala wala ab ab ab ab ab euh, day toog wax du fàtte dara loolu lu yéeme la euh, bokk na ci tamit euh, sàmmonte gi sëriñ bi di sàmmonte li ñuy tudde ak nisbiya nisbiya maanaam li muy wax di ci bañ a dogu lu am solo la ci discours booy discours bul nekk loo wax rek defe ne noonu la wala wala dañ cee war a dogu sëriñ bi li ñuy wax relative maanaam huwa insan nisbi da gis mu naan gis naa ne nag ni ma ko gisee li ma defe li ma defe ne mooy li ci gën a wóor yaa ngi dégg yaakaar naa ne defe naa ne ma jàpp nag ne jàpp naa ne dégg nga yooyu yëpp kon moom li muy wax dugg ci dafa moom da moom li mu jàpp lay wax keneen na jàpp leneen kon nis bi yéegi yaakaar naa feeñ ci ci discours bi yëpp Euh, lay yi am na yu ma ci tuddoon waaye lay yi moom dafa dafa transversal dafa dafa dafa discours bi yëpp fu mu ci dem rek war a joxe ay ay ay lay yu mu dëgërale ay waxam da koy def lislaam ju mat sëkk ndax amul yu dul moom war nañoo sàmmanteeg moom ngir mu raxatatal sunu doxin yow doomu aadama bu nekk boo waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yaa ngi ci jéng ndax as gor la te al xorru xorru maalam yatakallam ndax as gor gis nga ah nañ xam ne yàlla suñ boroom loolu mu def du dara ca moom ndax maa xalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin waahida dégg nga li tax mu wax wala takfuruuna ji mooy nangam looloo tax mu ne in takfuru tax ñu war a waxtaane ngorokum njullit warees naa jikkowoo ngorokum njulit ndax wuyoo turuwoo moomut yombut yaa ngi gis kon ak ak yu baree bari daal li mu waxee gis naa ne nit ñi gëm nañ ne yàlla moo leen mën a dimbale mooy seen borom ndax ci weer yi weesu jàkka joo romb yaa ngi gis moom toujours rek lu mu wax da koy da koy joxe firnde layal ko te foog naa loolu nag lu baax la ciy wax nit ki doo wax ak moom noonu rek di dem li ngay wax xamut fan nga ko teg da koy wax fan nga ko teg mu xam ne yow li ngay wax am nga ci ay information yu leer naññ. waaye euh, tanwiya maanaam euh, soppi gi sëriñ bi di soppi. siixa bi muy waxee léegi ci léeg ci biir discours bi léeg day jëfandikoo siixa boo xam ne moom da cay bokk te moo ca gën a bari léeg mu jëfandikoo siixa boo xam ne day mel ne day da tax am ñun taxawal di wax ak ñoom léeg mu jël siixa boo xam ne day mel ne day waxtaan day waxtaan maanaam jëng boobu mooy ban daal ne mooy fi nga waxee ne gis nga day mel ne day laaj daal di tontu. comme yu mel noonu jàngalekat uslub boobu gis nañ ko ci biir discours bi uslub bi nga xam ne nag moom da cee boole boppam te loolu moo ci gën a am solo mooy li muy wax ne li ñu dal ñun jullit ak yëg naa ne ñun ah li ko suñ boroom digal mu jot li ko ci ñun yooyu yëpp yu yuy tegtale ne moom ba tey eh, uslub boobu boole na ko ci nga xam ne eh, da koy jëfandikoo kon. bu dee waxtaan bi moom leeral naa ko loolu bi mu lan mooy jéngu boobu mu ne fi nga waxee ne nàngam ak bi mu nee suñu borom gàll ca ñaari ñaari baatam ñaari baat yooyu yëmm daal di tontu laaj maanaam moom mooy laaj daal di tontu te loolu yaakaar naa ne lu amaa am solo la ci discours daal maanaam uslub bi ngay jëfandikoo nga nga di ko soppi ci biir discours bi waaye nag soppi ngeen du du saa yu la neexee nga soppi ko maanaa yi xam ne maanaa yi dafa am solo. kañ nga ko war a soppi ak kañ nga ko war a soppi maanaam discours bi ni ràbbatloo yeewat léegi li ñuy tudde ay rawaabit maanaam da koo yeew ba mu ne ngott ci waxin maanaam lenn du ci rëcc ku ciy dem rek da yóbbaale sa morom ndax fu mu kii rek dana wut lu ko lu yeew borom bi ay rax ci dolle ci noonu dellu fedd li ko ne dal de nuy dal ne nu yëg wëlbatiku ne ko dal ko li dal koy waxit ne ko moom it dellu ca teg ne door a dikk ne kooka kanam mu daa di ne dal di ne kaay leen sax bokk na ci discours kaay leen nag yooyu yëpp ay yeewat la ko jiitu waaw nga gis ne foo ci toll rek da gis mu jël benn baat bu mu fa teg yeewat ko la ko jiitu beneen bu ci am solo mooy maanaam ni muy résumé te loolu dafa bokk nag ci kii maanaam nit ki doo jël moom benn affaire di wax di wax di wax ba mu yàgg rek nga arrêté boo waxee ba muy jeex da koy tënkal la nga wax jàll ca leneen am lu ñuy tuddee xaatima marxaliya maanaam xaatima nihaay yëpp mooy bu wax ji jeexee nga tënk lépp waaye nag bu dee ay tomb tomb bu jeex da nga koy tënk jàll ca beneen bu beneen jeexee nga tënk ko jàll ca beneen su lépp jeexee nag nga tënk lépp. loolu sax da ko doon bàyyi xel bi muy wax ci jéng bi ak ak ak boobu gi fa yi njeexale kon daf ne maanaa yi nag laay wax kon day mel ne su fekkee yaa ngi gis kon mi ngi résumé isan wala wax ala zalika wa bil jumla comme ñi xam ngeen li ma leen wax ay jàngalekat mu ne kon su fekkee ab jéng daa nekk say tànk ak buum nekk sa baat fooy teg sa tànk da nga koo war a teg xam ba mu jeex kon tënk na la ko jiitu lépp xulaasa marxal ya la loolu xaatima marxal ya ndax jeexal ko dégg euh, bi muy bi muy mu waxee ci suñ borom ba noppi dafa ne kon loolu mooy li aju ci suñ boroom ak diggam ak nit ki wala boog ni mu doxaleeg nit ki yaa gis kon loolu mooy li ma jiitaloon lépp ndax point bi loolu la ci doon développé li nga xam ne moo dox diggante sunu borom ak ni mu doxalee nit ki wala boog maanaam mu mel noonu la wax kon loolu ba tey tënk la jiitu la euh, ci euh, ngorgeen jullit gi ba muy jeexal mu ne kon li aju ci ngor akum jullit jàpp na ne sàmmonteeg loolu ci la bokk bi mu waxee bay bay daaneel dana kon nag lu aju ci ngor mooy liñ doon waxaat te wax ji lépp loolu la woon fi mu jëmoon mooy lim résumé mooy nit ki dafa war a am ngor amum njullit te mooy mu sàmmulee rek diggam ak suñu borom diggam ak moroom bi ci bi një bi bi bi bi jiitu bi ci mujj ci yii mooy euh, tawsiya bi nga xam ne moom la joxe ci mujjantal bi te tabax ko ci li ko jiitu ci maanaam point bi mu doon euh, bi mu doon bi mu doon bi mu doon bi mu taw si tawsiya mooy ay recommandation wala ay ndigal wala ay joxañ ay jàngale yoo xam ne dañ lay digal nga def ko soo koy joxee daa am ci loo ko war a tabax waaw ci misaal tey su fekkoon dañ doon jàngat jataay bi ñu ne nañ xool jataay bi lan moo ci baax ak lan moo ci des suñ noppee joxe ay tawsiyaat tawsiyaat yi daa am ci lu muy aju mënoo koo aj ci lu bokkut ci jataay bi mënoo koo ajit ci li baax ci liñ war a defaraat li war a baaxaat ci nga ko war a aj wala ci li niñ war a def li nga xam ne moo gën liñ nekk mooy ci mujjanteel gi fim mu nan am ngor nan am njullit ma ngay joxe benn recommandation bu mag boo xam ne daa aju ca ca la jiitu bi ci mujj mooy tëjtali te moom laay wax bàyyi ma xaat foofu rek la yem waxtaan wa tëj waaw ndax suñ borom dane wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa ida daani bàyyi leen ma xaq discours ba jeex bàyyi ma xaq mën naa doonum xaatima waaw ndax ñiy jàng xam-xamu discours dañuy wax ne xaatima bu gudd ayib la ci discours ayib la lan moo tax muy ayib mooy nit ñi ne leen a téye lu vingt minutes wala cinquante minutes wala waxtu waxtaan ak ñoom ba nopp di résumé jëlaat vingt minutes wala trente minutes résumé waat la nga waxoon duñ ci xam dara kon su fekkee wax nga li nga war a wax suy tënk tënk bi mën naa gàtt rawatina nag su fekkee sax point bu ne ba nga ca demee ba ca mujj ga tënk nga ko. tënk bu leer jàll ca ba ca des soo ñëwee ba ci mujjantal gi nag soo fa nekkee di guddal li muy jur mooy xalaati nit ñi jàppoon ci discours bi day daal di mujj naaw ndax sooy wax am na koo xam ne mi ngi la topp di di jël note wala mu topp la di di organiser affaire bi ci xelam soo demee ba ca mujjantal gi nag nga mel ne kuy defaat beneen discours moom la li mu jàppoon ci discours bu njëkk ba day day dem waaye leneen li mooy dëgg-dëgg lii day wane xaatima bi day wane respe bu mu jox ñi mu séqal waaye day wane timit nawlonte boo xam ne am na diggam ak ñi nga xam ne ñoom lay wax waaye day wane timit am solo boo xam ne euh, baalonte xaq am na ko waaye day wane timit sàmmonte gu muy sàmmonte xew-xew bi ak réalité yi nga xam ne mooy bis yooyu li ci baaxoo am mooy sëriñ bi baal leen ñu xaq yàlla nañu yàlla boole jëge kon loolu foog naa mën nañ koo wax ci loolu li may mujje mooy ay ay yan yan yan bind yan leçon yan yan yan jàngale yan lan lañ mën a jariñoo ci discours bi ñaari parti laa ko def benn bi ci wàllu technique technique u discours wala techniyatul xata xataa bi ni ñuy ni ñuy ni ñuy defee discours am na ci ay ay ay ay ay leçon yu ci mën a jël li ci des nag mooy li aju ci wàllu diine biñ ci mën a jëlee mooy importance bi nga xam ne fexe ba am confiance ñi ngay waxal ak seenu cofeel ci tàmbali discours bi ni mu amee solo maanaam nit ñi ngay waxal nga fexe ba bi ngay tàmbali wax bi nga kas bu seen fiqa am seen aatifa dafa am solo ci discours ndax day tax ñu nangu laa déglu day tax li ngay wax tamit ñu topp te sëriñ bi foog naa def na ko ci njëlbeen bi nuyu na mbokk yi ndokkeel na leen baalu na leen xaq sant na leen ndokkeel gi mu aj ko ci weeru barkeelu bi nga xam ne moom lañ génn te mu ñëw ba jàll ci jàmm yaa ngi gis mu gis mu wax ñooñu ñi muy waxal moom dañuy daal di gën ne kii moom ci ñun la bokk waaw ah. sunu mbokk ngi nii kii moom mat naa déglu ndax waxu fa lenn luy wone ne moom moo leen féete kaw wala seen kilifa la wala bokkut ak ñoom fuñ jëm waaye mën nañ cee jàngate nit ki war gi mu war a jox respect ak estimation mooy kañ walla joxub dayoo ñi nga xam ne ñoom nga yilif loolu nag foog naa ñu bari war nañ cee jàng ndax bariwaana ñoo xam ne suñ toogoon tey di waxtaan nga xam ne ñii ñuy waxtaanal am na lu ñu séq te moo ñoo leen féete kaw danañ xam ne kii sab surga la wala kii sab donga la te ci sa biir discours bi rek lay feeñ tàmbali bi sax mën na cee feeñ sëriñ bi même buy wax ak mbokki taalibe te di leen tudd taalibe yi sax sama mbokki taalibe yi ngeen may ma nag ma waxtaan ak sama mbokki taalibe yi kon loolu mat naa bàyyi xel waaye kiy wax war nay sàmmonteeg ñi muy waxal seeni réalité ak seen xaala biñ toll li may tuddee xaala mooy nee naa sëriñ bi euh, discours bi bi mu koy def yàggagul ci xilaafa gi xam nga ne yonent bi sallallahu bi mu nekkee màkk di doog a tàmbali woote li mu doon insister mooy luy dëgëral tawxiid ak wéetal yàlla booba atte yeeg nangam nangam yi duggagu dañ alxuraan daa ñëwoon rek ngir dëgëral tawxiid discours bi boo ko gisee xam ne sëñ bi booba daa toll ci jamono yi di jëmbat tawxiid ju wër te sax ci nit ñi moo tax discours bi lenn leneen newu ci tawxiid yi kese moo ci ne te loolu xam ñi muy waxal xam seen tolluwaay moo ko waral moo waral aayaat yi jël yépp aayaat yuy woote ci tawxiid ak wéetal yàlla bi may xool aayaat yi fukk juróom-ñeent yi yi ci ëpp sax mina suwaril makkiya yi ci ëpp ci suwar makkiya yi la bokk nga xam ne foofu loolu moo fa moo fa moo fa doon moo fa doon kon yooyoon oh xam na mën naa doon hasard nii de mais yàlla suñ borom ci boppam dafa xere su lay dimbale xam li muy def ci yow da lay jaarale foo xam ne soo ko defee dañ naan kii da koo préparé wala da koo waajal waajtaayu yàlla dafa gën a wér waajtaayu doomu aadama loolu moo ci am waaye sàmmonte képp kuy wax war ngaa sàmmonte contexte ba ngay waxal war ngaa na tamit thème ba ngay waxtaan te bàyyi xel jamono ja ngay waxe loolu yaakaar naa leeraloo naa ko ci njëlbeen bi korite xewu ñépp la sëriñ bi bi muy wax ci korite la wax daa def discours boo xam ne képp ku bokk ci korite rek man nga koo jëriñu foog naa loolu mat naa bàyyi xel bàyyi xel tamit ci jàngale yi nu ñuy toftalee suñ mbooleem jëf yi rawatina wootekat yi lan la ñuy jiital ak lan lañ ciy teg bu dee lislaam jàpp naa ne jiital aqida mooy li te sëriñ bi loolu jàngale ci discours bi waaye boole tamit tegtal yi nga xam ne dañ koo tuxal muy ay texte ak tegtal yi nga xam ne dafa aju ci xel mooy adilla al wa naqliya loolu moo gën a gaaw ilal iqna nit ki soo ko bëggee convaincre boo yemee ci ay texte kese boo wëttuut man naa wax ba daaneel te ay waxam say wax du ko dégg waaye soo boolee nag di indi ay texte di indi ay adilla yoo xam ne ci xel tegu yaakaar naa loolu moo gën a gaaw ci nit ki nga convaincre ko te sëriñ bi mel na ne loolu la def ci discours bi euh, bi ci mujj te war nañ koo jàng ñun ñëpp mooy gàttal ab xaatima bañ koo jël rek muy law ndax li ma waxoon léegi lay jur mooy nit ñi duduñ xam sax fi nga nekkoon bu dee nag ci geneen wàll gi ci wàllu diine ji ak ci wàllu woote bi mën nañ cee jële bind yii di ñëw bu njëkk bi mooy képp kuñ dénk ak njaboot danga ngaa war a yëg responsabilité ci sa njaboot googu ndax sëriñ bi yëg responsabilité moo taxoon muy def discours bu mel nii yëgoon responsabilité waxuma sax ci ci ci ci ci murid yi nga xam ne ñoo sës ci moom rek waaye yëg responsabilité ci l'islam ndax bu demee ba wuutu fi sëriñ Touba te sëriñ Touba nekkoon fi ngir l'islam yëpp dafa yëg responsabilité ci l'islam kon kenn ku ne war ngaa jàng loolu mooy nga yëg responsabilité ci ci ci ñi nga xam ne ñoom lañ la booleel nga di leen saytu wala nga jiite waaye bokk na ci li nga xam ne mën nañ koo jànge ci discours bi mooy ne sunu borom lépp lu santaane rek dana teg ay asbaab wala ay musahilaat wala ay zuruuf yuy tax mu mën a am bu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun wàllu ibaada ba dana ko waajal bu ne huwa alladi anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha imaaratul ardi dana waaj ay waajtaay yuy tax mu mën a am kon loolu tamit mat naa bàyyi xel ba tax lépp lu doomu aadama di sóobu ci lu jaamu yàlla bu mu ci dungal ko yaafus même bu xamul la ca aju wala nu ñu koy defee na xam ne yàlla moom waajal na ko bu dee ci wàllu àdduna bii ak lu koy dundal lépp luñ ci xamagul wala mënaguñ cee mënaguñ ko bu dee lenn luy yéwénal is eh, imaaratul ardi nag xam ne suñu borom waajal na ko ba noonu loolu luñ war a jàng la war nañ cee jànge tamit ne suñu borom xéewalam kenn mënu koo lim te suñu borom it du delloo mukk ku ko laaj képp ku ko ñaan rek dana la may te loolu feeñ na ci discours bi jaamu yàlla mooy na yoon wi nga xam ne moo mën a yóbbu nit ki ci texe ci àdduna ak texe ci àllaaxira foog naa loolu leer na ci discours bi sant yàlla tamit ci jëf la mën a nekk ak topp ndigalul yàlla yëmul ciy wax rek kon nit war naa weesu sant yàlla sant yàlla sant yàlla rek cant gi dañ koo war di jëf di ko wax ginnaaw buñ ko waxee ba pare boog boole ci ay jëf ñi ngi ciy jànge tamit nit ki ni mu war a gën a dëgërale ay relation digganteem ak boroomam waaye ni mu war a gën a dëgërale ay relation digganteem ak moroomam kon ñaari mbir la yoo xam ne benn waru cee dem bàyyi morom ja dangay ngay jiital suñu borom waaye ñii la suñ borom boole ci àdduna tamit nga fexe ba la war sa digganteeg ñoom ci jëflante bu rafet nga def dimbalante tamit alal birri wa taqwa loolu tamit mën nañ ko cee jàngee gis ngeen sëriñ bi fi muy wax naan nit bu ñëwee ci yow sàkku ci yow ndimbal dig digal boobu sax dig digal bu ama am solo la sëñ sëñ ab Lahad bi mu koy jàng léegi foog naa da ngeen ko seetlu baatu ndimbal bi nit ci doon ñëwee ka dem dimbal dimbal gi foog naa bu bu bu kii woon danaa danaa ko xool mën naa cee euh, mën naa mën naa koo xoolaat ndax dafa dafa yaakaar naa biir waaw mu ngi nii baatu ndimbal bi da ngay gis ni muy rote ci biir discours bi di di di di nii di dem ak ñëw dafay wax ne euh, mu ne yow ngir yàlla mu ne bu nit ki ñëwee ci ñaw yow ngir yàlla bu bàyyi boo bàyyi ko ci sa kër dikk dikk nag dikk ne ko man day waaye damaa xam loo xam ne euh, damaa bëgg nga dimbale ma ci ba yàlla dimbale ma ma delloo la ko mu daal di xam ne yaa ngi sàkku ndimbalal yàlla te xam ne ne yàlla dana dimbale moom it mu nangu ne yàlla dana dimbalee dimbale la ca loola ne la dimbale naa la ca la la yàlla ba yàlla dimbale la nga delloo ma la ca gën a rafet bu la yàlla dimbalee ndimbal lu kenn mënta nii nga gis ndim ndim waaw nga gis loolu ni ni mu ni mu ni mu ni muy demee ka ñëw ni mu rafete lu ama am solo la te loolu dafa aju rek ci baatu ndimbal bee e, taawun bi nga xam ne moo war diggante nit ki ak mbokkum jullitam takraar bii day day wane importance wala solos li muy wax ndax baamu moom xam nañ ne am na am na day am xadëf kenn du baamu rek ngir hasard kon baatu ndimbal beeg yooyu ni muy baamoo day firndeel ne ndimbal bii lu am am solo la moo tax alquran ne wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu wal udwan baal leen ma àq asalaamaaleykum wa rahmatulah nga jàngatal nu ko rek indil nga nu ci lu kawe jox wa tabarakallahu jàngal nga ko jàngat lu leer lu xóot lu xam-xam yi itam nag ñu ñu mën cee dégg rek ne sëriñ Abdul Ahad Euh, waxtaanam lu mat a dellu la borom xam-xam biir la niveau bu kawe itam lay waxee ci xam-xam waaye itam da koy yàkkal wolof yi ci ndabul wolof mu jege leen lool ñu tiim loo xam ne bu fekkoon ni discours yi dañ koy jàng jàpp naa ne ku mokkal discours ñëpp daal da nga am niveau bu kawe ci wàllu xam-xam alors nag ci méthode bi sëriñ bi di jàngale la bu jëlee ndax tasawuru sixaar bii nga xam ne sëriñ ko bind ngir ndaw ñi ñu xóotal xam-xam wax nañ ne niveau certificat la tolloo jàpp naa ne li nga indi fii ci discours am bii su fekkoon ne jamono dem na ba di jàng raayaw raaya euh, di delloo jukkal defkatu discours mhm. xitaab yëpp solo ci adduna mhm. buñ demoon ba nii tasaaroo ba nii ñu ko tàmbalee nit ñi xam ko bu baax jàpp naa ne raayoowu ki dàq discours ci àdduna mm-hmm. buñ ko ko joxee danañ ko nangu ndax xam-xam laaj na ko dañ ko jàngat xam-xam indi ci ay lay yoo xam ne jërul sax ñu di ci dellu mu feeñal xam-xamam feeñal yërmandeem feeñal itam ni ñaar yi rek ñoo fi nekk muy jaamu yàlla ak liggéey ndax lim lim indi lépp ci lim dellu ñaari mbir rek ci lay baagal bi muy santloo nit ñi ñu war a dellu ci yàlla lam indi ñu war ko sant yàlla ci jaamu yàlla la dellu waaye jaamu goo xam ne day njëkk ci wane ne yàlla mooy kenn ndax wane ne moom rek moom man lii lii lii li ñu soxla te mënuñu koo ñàkk itam moom moo ko yor ci moom rek lañu war a dellu yem ca leeral ya nga ci indi xalaxakum ak rasaxakum ak yumitukum ak yuhyikum ak lam ca teg yépp ni nam ko waxee ak njëlbeen gi scénario bi nga jàngale ci ne waxante bi xaatimante bi am ci diggante mag sallallahu alayhi wa jaag joxoñ gaag joxalante boobu wax ki kii mooy kan bi ñu xamee kii mooy kan lim leen indil mooy lan lim leen indil lan la leen di jariñ yéen bu ngeen ci jaaree fu ngeen di mujj moom itam mu delloo njukkal ki ko teg fii muy sallallahu alayhi maanaa sallam maanaam delloo njukkal boromam bi ko indi ci nit ñi wane itam ne moom it moom ñu fi indi kat indi fi ngir sama jëmm rek buñ àndandoo woon di def dara nëbb ko feeñal ko moo ci am lu ñuy def kat xam na ko noo àndandoo di ko def jàpp naa ne ni nga ko indee ci ci ci ci ay anam yu leer yuñ mën a teg baaraam euh, solo si ëpp na la ca toppit mooy diggante jaam bi ak moroomam yaakaar naa loolu moo jëm ci diggante jaam bi ak boroomam waaye diggante jaam bi ak moroomam itam jëflante boobu anam gu rafet gi mu ci jàngale rek jàpp naa ne réew mu ko jëloon teg ci sa kanam yaar yii ci am dog bu rafet boo xam ne jàmm dana am jaamu yàlla dana am dimbalante dana am ànd itam ci ngor day am euh, ku sax ku aajo woon dimbal ku aajo woon dimbal ñu dimbali ko jàpp naa réew mi laaj na loolu képp ku ko aajo woon dimbal ñu dimbali la waaye itam nag dimbali gi itam leblante bi am nga xam ne naan nit kii bu tollee diggante dem ci moromam mu jox ko jokkalante boobu mooy tax adduna mën a dox waaye loolu itam su fekkoon ne ni mu waxee ne ni lañ ko war a defee bu ñu ko di doon defee kon jàpp naa kalaamenteeg yi xew yu bare bare ak nit dem ba nit ñi soxor ba dootuñ nangoo dimbale te ñàkk a delloo njukkal yàlla te loolu itam jëflante bi ndeke day dellu ci sant yàlla day dellu itam ci ngor akub jullit li nga ci joxe tabaarakallaahu mat na doy na sëkk euh, nun saa wolof yi nag ñu dañ ci amaan weneen laaj wu ñu ci neex ci ni muy jàngalee wolof mm-hmm. yàlla ju woo koŋ xam nga yàlla ju tooy xippu mooy yàlla yi bànneex ji xew léegi moom waaw ah, wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah hmm. nit ñi dañuy jàppee dañuy jaamoo yàlla seen bakkat hmm. yàlla nag du neex waaw ah, bala ne bala ne nuux nuux ne war war waaw dafa war a metti njëlbeen moo tax mu yàlla joo ko mooy yàlla joo xam ne dara rey bakkan neku da koy jàmm moom da koy jaamu moom daal nangul ko déggul ko hmm. déggal ko maanaam na seet na leer naññ na woo koom euh, am na it baat bu wax ci biir baat bu ma neex boo xam ne lu néew la nga koy dégg ci jamono baat bi sax gis naa ko ci alxuraan waaye mooy dañuy dëppoo baat te duñ bokk maanaa ci firi bàkkata man nee na ngor ak njulit doos góor doos dóob julit fi muy àgg nit ci metti bàkkata àggu fa ci àgg ci fetal xam nga fetal yi ko composé mm-hmm. bàkkata ak solom mm-hmm. ak la ñuy téq ak ndeñ mm-hmm. yooyu mooy tax fetal mën a taxaw bàkkatam boo bu bu bu amul ci bu amul ci fetal wala sóoraale woo ko mënoo diir ba jàmm fa ngay teg sa bët di diir hmm. war a teq loolu mooy bàkk loolu mënut a tàggoo ko fetal hmm. eh, baatu jikko bi bi mu tasxiir ci njikko njikko maanaam një ci wolof dana am njëyi tasxiir am njëy yoo xam ne du njëyi tasxiir hmm. njikko jooju mu ne as njikko la maanaam ndeysaan mel ni lu ñu war a mën a faj la daal maanaam lim ne suñ digg ak suñu borom li nu ci daal du ci moom ci nun la del waaye as njikko la mu mel ni kon buñ ci taxawee mu mën a doy waaw tastir googu mu def ñi ci jikko euh, càkkeef càkkeef di bawoo ci baatu sàkk mm-hmm. cë ak së dañuy weccante lu yàgg ci së di cë mm-hmm. mm, sàkk mooy jële ci lu ñu jële ci lu ñu sàkk mm-hmm. sew sew yooyu nga xam ne dégg gi wolof ba li arab maanaam naxwu lëgg-lëgg yi am ci wolof yooyu itam dañ koy soxla te da koy indi indi ci biir yi waxtaanam kon tabaarakallah sëñ Mokhtar li nga fi indi macha allah am na solo yàlla yàlla yokk xam-xam bi yokk wér gi euh, ba liggéey ngay liggéeyal lislaam ci biir yoonu murit suñu borom may la ci kattan bu baax euh, di fàttali rek ne noo ngi aj noo ngi yéen ci jataay bi nuy jàngate discours Sëriñ Abdou Lahad fii ci bundu ko Sëriñ Abdou Lahad ànd koog euh, mboolem rajo yi ne ci gox bi ni ki Lampo FM Jant bi FM Walf Fadjri FM RTS FM Zik FM Benno FM Touba Fall FM bu dee ci wàllu télé yi itam noonu ko ànd ak yéen ni ki RTS Touba TV RTS Touba TV ak mboolem site yi nga xam ne ñi ngi jël waxtaan wi di ko jàllale en di ko jàllale ci daar daar tàmbalee ci Touba Vision bi nga xam ne mi ngi koy def direct di ko jàllale fii ak académie Minane ak assalaami ak istiqaama ak ndindi at belal at seen xibaar leer leerlu TV sunu info nga ngaabu média kon ñoo ñëpp ñu ngi àndandoo ak yéen di ko jàllale ba mbokk yi man ca jot xam naa kon ni ñuy def dañuy jox rek kenn ci mbokk yi mu wax ci turu lañ na bi kenn ci Abdoul Ahad yi nañ ma ci tànnal kenn rek sëriñ Abdoul Ahad moom sëñ Muxtaar kon nga ñëw wax ci turu lajna bi euh, waaw <laughs> bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi am berte di leen nuyu ci turu al-lajnatu safafiya bi nga xam ne moom la sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre tànn ngir ñuy saytu lu ci waxtaan yi nga xam ne ñoo jëm ci màggalu Cheikh Abdou Khadre ak lu aju ci communication màggal ñuy wax nag ci turu commission bi yëpp ci ñu jéem a sëriñ Abdoul Ahad Jaxate ak Abdoul Ahad yi nga xam ne ñoom la ko seqal yëpp ak ñi nga xam ne bokk nañ ci commission bi te pour ñu Abdoul Ahad waaye itte woo liggéey sëriñ ci biir liggéey bi rek dugal leen ci kàddu yi nag kàddu yi jàpp lay ndax keroog bi ñu waree ba ca suba sa la ñu bi woo fii ci kër gi xamal ñu ne fas nañu yéenee amal màggal gi ren digal yu ñu taxaw ci liggéey bi nañ ci daan taxawee ba ñu fa génnee la ñu daal di jokkoo ak mboolem koo xam ne daal ñu jàppale ci liggéey bi ñooñu ñu jokkoon nag bokk na ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ci dëkk bi te ñu baaxoo di leen déplacé di leen defloo ay waxtaan waxtaan yooyu bokk na ci ay waxtaan yoo xam ne ay témoignages lay doon. tudd nañ fi léegi ay kilifa yoo xam ne def nañ témoignage ren di ñu ràññee ci sëriñ Mouhamadul Mamoun moom Cheikh Mouhamadul Fadil ràññee ci sëriñ Cheikh Oumy Mbacke ñuy ñaan suñu borom doole bu yërmande ak njëggal moom ginnaaw bu mu defee témoignage ba noppi suñu borom dafa dogal mu wuy ji boromam ñu koy ñaanal suñu borom doole bu njëggal te doole bu yërmande yaakaar naa yéen ñëpp seetaan ngeen ko moo sol lu bula lii te sol mbaxana mi te yàggoon lool ak sëriñ Abdou Lahad te def témoignage bu am solo mu mel ni loolu suñu borom dafa dogal ni waru ko woon a ñàkk a def rek faaw mu génne li nekkoon ci moom ak li nga xam ne dund na ko Cheikh Abdou Lahad te témoignage am yooyu mu def am na ci kiimaane loolu ndax bu ngeen ko seetloo ci biir wax bi dégg mu wax ne Cheikh Abdoul Ahad waral na ko fi Serigne Touba diglee woon ci géej gi ci diggante Dakar ak Conakry kon loolu seera na su am solo naka noonu itam Serigne Youssou Diop mi nga xam ne moo jiite Hizbut Tarqiyyah kon ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoo def ay témoignages ren waaye mu am ay borom xam-xam yu jàmbaare yoo xam ne ñenn ñi ay membre lañ ci commission ñeneen ñi ci xay na du ñu ay membre commission bi waaye ñu ci jàpp jàpp yi bu am solo rek mooy bari ay rajo biir dëkk bii rek lu mat fukki rajo ak ñaar wala fukki rajo ñett ñu ngi fi yoo xam ne benn bu nekk ba teroo ba léegi ñu ngi def ay waxtaan yu jëm ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxtaan yooyee ay bokk ñooy déplacé wu dagg seen yitte ngir seen seen diggante ak sëriñ Abdou Lahad waaye seen diggante ak commission culturelle yi dem defi waxtaan woowee te ñooñu am na ci ñooñu ay membre lañ ci commission bi waaye am na ci ñooñu doon nekkuñu sax ay membre ci commission bi waaye seen jëflante bu rafet ak commission bi moo tax ñu taxaw ci taxawaay yu am solo yooyu naka noonu site internet yi lu mat fukki site internet ak lu topp ñoom it ba weer bi tàmbalee ba léegi ñi nga ànd ak ñun ci liggéey bi témoignage bu ñu am ñu jàllale ko réunion bu am solo bu ñu am bu jëm ci magal bi ñu jàllale ko ndaje mu am solo bu ñu am ñu jàllale ko ñoom it ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm waaye ci biir waxtaankat yooyu seetlu nañ ne def nañ fi ay table ronde def nañ itam yenn ay plateau ci télévision yi yooyu yëpp itam bu ci nekk ay boroomi xam-xam ñoo déplacé wu dem defi ko. te ñooñu ñëpp kenn ku nekk fekkoon nañ la ci jamono ju xat fekk la ci yitte yu bari fekk koor gi di door a jàll nga sonnoon ci ay waxtaan yoo doon def ak yéen doon def waaye teewul nag ñoo liggéey boobu jàpp lañu ci ba ba ci rek kii doon mujj def waxtaan bii léegi muy Cheikh Mokhtar Lo mii nga xam ne moo doon def waxtaan bii léegi waaye mën nañoo wax ne la tàmbalee ci ka ci njëkk a def waxtaan ba ci moom mii ñoom ñëpp commission ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di lu seenu jàppalante ak noonu ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi daf ñu ko sant te am yaakaar lool ci ne lii muy sant war nañ koo mën a doxal kon képp ku ñuy jàppale ba ñu amee ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee rek sunu xol seet na ci yow la ñuy def mooy di la ñaanal suñu borom mu wóotu fayal bi la di sant nag ñi nga xam ne itam ñoo amal. exposition bu am solo bii nga xam ne moo nekk suñu gannaaw doonte ay membre lay sax ci commission waaye ñoom it am ñu nekk seen gannaaw ñu leen jàppale lool ci liggéey bi man nañ caa tudd rek Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne ñoo fi def base bu am solo bii nga xam ne tey jii fi la defee exposition bi waaye itam indi fi euh, sonorisation bii nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nii tey te doon fi defee. exposition ñëw fii ñëwin mu am solo délégation bu riis bu rëy boo xam ne Serigne Youssou ànd ak mboolem responsable bi nga xam ne ñoo nekk ci daara bi ñëw jëmmal si liggéey bi loolu loo am solo la loo xam ne jàppalante li mu wax li wax léegi ci bëccëg mooy li am solo mooy jàppewuñ ne ñii dañoo nekk menn mbooloo nekk fee di liggéeyal Serigne ñeneen ñi nekk meneen mbooloo nekk fee di liggéeyal Serigne waaye ñëpp ñoo ànd di liggéeyal Serigne Touba waar ba faawu kenn ku nekk dal ci aw doon nga mën a daje ci digg tool bi ngir tool bi mën a set loolu it lu am solo kon ñu ngi leen di sant bu baax ci turu Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdou Lahad waaye di leen sant it ci turu commission culturelle bi nga xam ne moo amee liggéey bi tey ñaan suñu borom mu fay leen ci jëf ju rafet yi nga xam ne jëf nañu ko fii di sant sunu mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal daayira Moukhaddamatoul Khidma te ba ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ci liggéey bi ci lépp lu koy tax lii ngeen gis ci suñu ginnaaw di exposition li biñ koy collecté bi ñuy dajale xikam yi biñ koy bind biñ koy euh, imprimer lépp ñun ci ànd ak sëriñ Abdou Lahad mii nga xam ne moom lañ dénkoon exposition bi di ko jàppale mën nañ cee tudd rek ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi jàppale sunu mbokk sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye ak sëriñ Abdoul Ahad bu sunu tëri bi ci liggéey bi ba liggéey bi rafete nii mu rafete selle nii mu selle ba ci organisation bi ñoom ñëpp ñu ànd ko ak sëriñ Cheikh Abdou Diatara mi nga xam ne organisation bi loolu itam lu am solo la te dana rafet lool ñu jottale leen ay sant gërëm leen ci taxawaay rafet bi nga xam ne moom la am ci liggéey bi waaye di sant nag ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad tàmbalee ko ci euh, njabootu sëriñ bi ci boppam sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Hamza ñi nga xam ne ñoo jiite euh, organisation màggal bi waaye ak monsieur le maire sëriñ Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxoom ak ñi ma ko àndal ñëpp ñu ànd koog ñun àndin bu rafet ci encadré ñu di ñu conseillé di ñu jàppale ci liggéey bi lépp fépp fu ñu leen woo itam ñu wuy suñu fa ñoo rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant donga yi nag dongay tarbiya yi ak doomi donga yi ñoom it wax dëgg yàlla lépp lu ñu sumb ci liggéey bi bañ koo tàmbalee ba léegi ñu ngi ci ànd koog ñoom guddi ak suba ak seen taxawaay rafet na lool mat na sëkk euh, ak euh, euh, ñoom lépp lu ñu sumb bañ ko tàmbalee ba léegi seen taxawaay mat na ci lool rafet na ci lool waaye nag mënuñoo ñàkk a ak cant njabootu Cheikh Abdoul Ahad bu jigéen bi te soxna may mën a nekk ca bopp diiru ba sëriñ bi taxawalee commission culturelle bi ñu amee deel liggéey bu am solo bi teg ko ci seen loxo ba léegi at mu jot soxna may day mobiliser rakkam yi yëpp ne leen waxtaan bi fu mu mën a am ak fu ñu ko mën a organiser na ngeen dem jëmmal ko teewal ko rafetal tey jii de ñun ñoo leen yërëm te xam ne ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngay màggal ci sa kër te waaye suñ leen woowoon nattablewuñ ne danañ bàyyi seen i gan ci kër ga ñëw teewee nii ba mu jeex loolu nag parce que wéy la kon ñu ngi ci sant soxna May Muna di ci sant soxna Njaxat mi ngi koy coordonné loolu rek di ko woote loo te am ci yitte lool am ci yéene lool am ci pas-pas lool te nangu koo teewee lool nangu cee soññi ay magam ak i rafetam lool. Euh, kon dal ci tënk dañuy wax ne rek ñu ngi sant képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi moo xam nga jàpp ci ci lu jege moo xam nga jàpp ci ci lu sore mënuñoo ñàkk nag beral ak cant euh, ñii nga xam ne ñoo nekk ci suñu kanam di télévision yi nga xam ne ba ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi seen yéene ci Cheikh Abdoul Ahad ak seen cofeel ci moom dafa feeñ lool ci liggéey bi mën naa ne amul benn télévision booy seetaan ci Sénégal ca ren génnewul témoignage yi wala génnewul waxtaan yu ñu def ci Cheikh Abdoul Ahad wala génnewul yuñ masoon a def bu yàgg te ñi ci ëpp sax woote nañ fi laaj liggéey bi ñu liggéey ren te ñi ci ëpp jàllale nañ loolu mu si leen cee ñàkk a beral ak cant waaye am na rajo bu nekk itam ca Kébémer di rajo boo xam ne day rajo en ligne la euh, tudd daa di FM moom it nga xam ne ren la dawee ci liggéey bi yàlla xam na ne ñun sax bi ñuy tàmbali liggéey bi xamuñu ko woon ba ne ba ñu ko boole ci liggéey waaye moom moo ñëw dàbboosu ñu dàbboosu ñu ngir ànd ak ñun ci liggéey bi te liggéey ci liggéey nag bu rafet solo boo xam ne ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew yëpp ñu ngi koy bàyyi xel di sant nag mbooleem site internet yi waxoon naa ko léegi ñoom it ku gis ni ñu liggéeyee ren wax dëgg yàlla da xam ne jàpp nañ ci màggal gi lool tey dañ cee ànd ak cawarte ànd ceeg yéen production bu ñu def te saasa lañ koy daal di monté daal di koy dugal ci bis bi malgré ne seen calendrier xat na seen yitte bari na xew-xew yi bari na yitte yi itam jaxasoo na fenn fu nekk ña nga fa waaye fexe nañu ba organiser woo noo xam ne lu xew dana am ñu fa teew ñu ko jël te bu ñu ko jëlee danañ fexe ba jox ko ñeneen ñu ko seetal ñëpp ñu jàppale kon daal télévision rajo site internet ba ci journal ak ñëpp ñoo xam ne liggéey ko ci wàllu communication ñoom ñëpp. kon solo ñu ngi leen sant ñu leen di gërëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ñun liggéey bu yi ba liggéey bi agsi fii di ñaan suñu borom bi nga xam ne moo am fay yàlla ñu leen fayal ñu dellu nag ci jeexi ci euh, mujj waxtaan bi tey ñaan yàlla bu mu doon suñu mujj waxtaan euh, di gërëm mboolem ñi ñu seqal commission bi rek di ko tàmbalee ci président bi sëñ Abdoul Ahad Diakhaté doon ku neex a àndal moom itam mën a déglu ñi muy àndal nangoo diisoo ak ñoom nangoo ànd ak ñoom ci lépp lu ñu luy tax liggéey bi rafet euh, jàpp na lépp kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax commission bi ñu ngi lay sant bu baax xam ne dañ ko nañ leen ay commission sëriñ Abdoul Ahad Mawassa euh, mën naa ko tooñ lool waaye ko jàmbaare la ko am pastif la ko sawar la ci liggéeyu Cheikh Abdoul Ahad bi ñi ñu ko joxoon coordonné ne leen coordination boo xam ne yaakaar naa ne a sonal moom mel noonu da jàpp ne moom noonu la ko yàlla bindee amul ay tappale ci dara lépp loo ko jox rek di ko liggéeyloo na day koy teg rek ci yoon boo gën a jub gën naa baaxee nam xalaatee ne noonu la gën a baaxee rek noonu la koy defee waaye du ci muñ dara nag kon Serigne Abdou ñu ci fànn ak ñi nga seqaloon wàllu communication yi ñëpp Serigne Abdoul Ahad Ka Serigne Abdoul Ahad Bousso Thierno Serigne Abdoul Ahad Ndiaye di sant ñi nga xam ne ñoom lañ dénkoon commission scientifique bi mooy wàllu xam-xam di sëriñ Abdoul Ahad Thierno sëriñ Abdoul Ahad Bousso moom sëriñ Dame yi ak sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ ab sëriñ Dame Bar sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ sëriñ Abdoul Ahad Lo ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ci commission scientifique bi nga xam ne fu waxtaan am ci réew mi fexe nañ ba ndaw dem fa lu xam la muy wax xam ci ki wax te man koo wax wax fa lu am solo loo xam ni ñëpp rafet nañ ko bu dee lu lu yan yi ñoom ñooy jógal seen bopp yan ñu wut ku leen fa wut waaye ka ñuy wut dañ ko xamee ak seen jëm kon sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax tey ñaan sëriñ bi suñu borom nangu sëriñ liggéey di sant ñi nga xam ne ñoo yore wàllu wàllu exposition sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Abdoul Mutalib sëriñ Abdoul Ahad Diatara sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi ñu seqaloon liggéey bi ñëpp bàyyi wuñ kenn sëriñ Abdoulaye Diop tuddoon naa ko sànq ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Raja moom dafa taxaw ñaari taxawaay ndax duggoon na ci fi ma njëkkoon a wax léegi waaye duggaat na fii itam te def fi liggéey bu rëy te sawar ci lool itam ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndaloon. sëriñ Abdou Lahad moom sëñ naa ko ci commission scientifique bi te mu liggéey ci liggéey bu rafet kon ñoo ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiix te nangul leen ci barke Cheikh Khadim tey ñaan nag ñu teewaat ak yu bare bare a manqué suñu borom yàggal fi sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad yàggal fi magam di baax yi xam ne di Cheikh Mouhamadul Moustapha wasalaamu aleykum wa rahmatullahi tabarakallah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu sëñ Abdoulah Abdou moom sëñ Muxtaar xanaa mbokk yi leen fàtte rek ne ci kanam tuuti rek dana am jotaayu xam-xam bu am solo bu fi sëñ Seexuna bu si tudd leen war a def bismillahi wa ala sunna sayyidina ñu jëmee ko ci dund sëñ Abdoulah bu noppee daayira bi ñuy wooyee islaahu daarayni danañ fanaane guddi gi ci njàngum kuréel kuréel bu jóg rek beneen toog te lépp xasee si baay dañuy yëkkati ci anam bu dal te leer boole bokk yi nga xam ne dañuy jàng alxuraan ak durus fanaane ko incha allah noonu la ñu fas yéenee fanaane guddi gi. وظالمين من كفاني الصدمات سعادتي عند الإله الله لي ظهرت عند ذوي الملاهي